Vous écoutez Sunyker FM sur www.sunuker.com. Vous écoutez Sunyker FM sur www.sunuker.com. Compétence. Indépendance. Crédibilité. Juste pour vous. Sunyker FM. La première radio africaine à Los Angeles. FM sur yi nag jàmm ci rajo suñu kër FM ci 3W point suñu kër point com ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di amati mbégte kontaan rek dellu si ak yéen seen émission bii di euh, suñu kër matin ngeen koy am altine talaata alarba alxames ba àjjuma euh, bu 8h jotee jàpp 10h euh, tey nag Elimane Ka fas yéene ko présenté ànd ci ak équipe bi soxna Roxee sàll ak Cheikh Tidiane Dansokho soxna Mari Dabo nag dafa xaw a absenté tuuti rek ñu ngi koy nuyu bu baax baax di leen di ko ziar. di nuyu ñak ñi nga xamanteni ñoo ñuy teewlu fu nekk rek euh, ci biir Sénégal ak ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax baax di leen ñaanal jàmm euh, di ziar suñu kilifa diine suñu kilifa ade yépp ñu di leen di ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér di euh, ziar ñëpp rek ñi nga xamanteni ne ñooy safoo la radio suñu kër FM foo leen mënta nekk rek ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen wax ne rek ñeen ñi nga xamanteni ñuy seetaan ci Facebook live bi tamit ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne man ngeen télécharge suñu application boo leen demee Play Store wala Apple Store

waaleykum salaam. ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax yaa Seyda. delloo ziar. Hmm. oustaz Eliman. waaw ah, kay <laughs> kese nga may waxtaan xam nga yow. xanaa bi xëy na yàlla daa def na man ah. damaa déggul arab ah dañ war a geestu tuuti nag. kan tànk ay ngay toj ay ngay toj fii kay moom soo ci boole nag arab tuuti dana dinaa la jox émission de. damay bañ auditeurs yi ne waa moom daa yemut ci journaliste gi daa bëgg a doon am yaa Seyda. Ah, attention attention dafa ah. mu ngi noonu xam nga dañ hmm. ah, moom làng la moom. làng bu parce que boo yàlla def na sax jàng naa ko waaye. dama cee foor. xam nga Arabie Saoudite boo fa demee am na ñoo xam ne arab lañ dégg te ay avocat lañ ñi ay. waaw mu ngi noonu. même Sénégal fii sax am na ñoo xam ne seen seen seen langue la te mu nekk langue bi gën a fort. ci àdduna bi mu ngi noonu mooy arab. waaw léegi yàlla baax na dinaa ko dinaa ko jàngiwaat boole ko boole ko anglais bi nga dégg ak espagnol bi rek dinaa ko jàngiwaat. <laughs> ayca maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax euh, di nuyu Dansokho mi bokkal plateau bi di nuyu suñu auditeurs auditrices yi nga xam ne saa bu ñu yeewoo rek ñu ngi teewlu suñu kër. Euh, FM ci 3W point sunu kër point com di ziar Ndeye Marie Dabo dafa absenté dañuy wax rekk ne saa su nekk ñun mënuñ ko wuutu waaye dañuy góorgóorlu rek def suñ kéemtalaay kàttan mhm. di ziare kilifa diine kilifa aada yi nekk ci réew mi dem ba diwaanu dina bàyyi law naña seen daal di fay jébbal suñu nuyoo ñu daal di ñuy yóbbul géew xalif généraux yi nekk ci réew mi yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah àdduna wërngal këpp waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kontaan ci moom bu baax a baax soxna Roxia Sall ci kanam tuuti incha Euh, ñu daal di ànd ak yow ci li nga xamante ne moom moo gën a fës si ëttu yéenekaay yi laata loolu ñu jox ko moom it mu daal di nuyoo Cheikh Tidiane Dansokho salaamaaleykum. maaleykum salaam El waaw ñu ngi lay ziar Cheikh Tidiane. maa lay delloo ziar bu baax. naka weekend bi mbaa alhamdulilah. waaw weekend bi de naa tàng tuuti waaye démb climat bi wàcc na. Hmm. donc sant yàlla rek. démb Kaolack ñaata degré laa amoon. non kii wutoon nag bëri wutoon est-ce que 38 wala 37. ah loolu de baax na par rapport ak 44 degré yi ñu doon dund fan yii ci ginnaaw. non euh, non vendredi ak moom ak. Euh, jeudi ba ba waaw. Euh, damaa yaakaaroon ne yàlla dañu doon buggal <laughs> tàngoon na torop torop torop. tàngoon na tàng xam nga woor ci tàngoor dafa xaw a métti. Hmm. dafa dafa neexut parce que mbooyo bi bu jógee. Hmm. feebar yi la mën a jural sax dafa bari. te man li ma caaxal ci kaw ci Kaolack Cheikh Tidiane Dansokho mooy ñaari climat yi ñu am bëccëg bi day tàng jër guddi gi day sedd bëgg yow nga yaakaar ne yow yaa ngi si. Euh, loolu mooy waral ne loolu mooy ñi fi nekk sama genre gi nga xam ne dañoo seen seeni i anticorps dëgëru dañuy soj rek. waaw sama genre yi nga xam ne sama bakkan bi baaxul. <laughs> loolu moo koy waral waaye itam Eli euh, gis nga weekend bi dëkk bi dañ ma baare tali yëpp. Hmm. mooy fi ñu defar reportage noonu ci ndox mu doon ball fële. waaw ñu ngi ko doon defar. gars yi ñu ngi koy pa sax. waaw ñu ci. ña nga ca. waaw na solo de. <laughs> déedéet ah, man xam naa gars yi yow yi nee naa nee naa leen daal. Hmm. Euh, yàlla baax na dafa am dafa am éli ku ma wax dafa nekk sama xarit Burkina Faso. Matar Thiam maa ngi lay nuyu bu baax. Matar Thiam. waaw dafa am suñ benn émission buñ partage benn groupe WhatsApp nee na nag du ko wax. Hmm. samedi ci ngoon waxtaan nañ ci ba son neen nag duma ko wax nee naa ko wax ma groupe whatsapp mu ne ma groupe whatsapp la euh, dañ fa partager seen émission suñu kër matin di fa waxtaanee hmm. nee na ma ngeen aborder sujet yu yu yu intéressant hmm. ngeen koy waxtaanee ma ne ko nag xam nga moom gars yi moom dañuy partager rek hmm. nee na ma nag kenn la ci say ami xam man moom xawma samay ami fii man moom facebook man dama sob ci whatsapp bi damay partager rek mais bon bu fekkee loolu la daal nañ gën a defaraat wax yi gën a defaraat toogaani ndax xam naa ne ñàkkul ñu doon samay soppe mm-hmm. wala ñu doon ñi nga xamante ne dañ may bàyyi xel parce que àdduna moom euh, li may wax rek kenn mën na laa bàyyi xel di la partager di la yóbbu fu sori kon donc mm-hmm. euh, damay wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla yokk lépp amiin comme ñi ngi jël affaire bi di ko partager samedi la ma ko envoyé message di ma ko wax ne ma macha allah seen émission bi am na solo gars yi dañ ko dama ko dugal dama bokk benn groupe intellectuel ñu dugal fa affaire yi di ko fa waxtaanee ci benn thème bu ngeen doon waxtaan maanaam ci viole yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku Sénégal ak yarin xale yi. Mhm. yooyu noonu yëpp ma ne ko ah kon nañ gën a yokk suñ mëni nag suñ taxaw. mu ngi donc di la wax yow tamit merci beaucoup di la jaajëfal di jaajëfal grand Ndiawar ah, donc di ko wax daal nañu gën a dooleel rek àdduna mu amul solo. Aïcha mu ngi noonu àdduna amul solo di ko jaajëfal bu baax donc boobu noonu ah, eh, damay damay damay damay profité di leen nuyu. Mhm. xaw ma leen nag waaye maa ngi leen di nuyu waa suñu kër FM équipe bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen baalu àq di leen baal di leen wax asalaamaaleykum di wax képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel rek xawma la xamoo ma maa ngi lay wax baal ma àq di jéggalu di la wax asalaamaaleykum Eli. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي زيارة زيارة وات بباخ باخ أه، سيخ تيجان دانس خودي كون تانتي مون بباخ باخ كم نمكو خيرك أه، ما شاء الله اميشون سنو كار متين اميشون نيبولا يني ينا تحني توقفي di traité ay information yu am solo rek yoo xam ne yu wérte wër la ñu koy waxtaane nag waaye tànn ci ay sujet rek di Euh, ñun ñëpp ñu njëriñoo ko euh, di di ziar ñëpp ñi ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ñuy teelu fu nekk daal di biral nuyoo nag suñu président directeur général Ndior Diop foofu nag ci diwaanu Los Angeles ak famille bi yëpp Babacar Diop bis ba ci Italie ñu ngi koy ziar bu baax baax di ko kontaanee huit heures euh, neuf minutes moom moo daal di jot ci kanam tuuti rek ñu ñëw ak yéen di yu ne xëy xewete ak soxna Roxia Sall. dégloo sunu kër FM seeni kër laa ma nga dégloo dégloo dégloo ci. huit heures dix minutes euh, seen rubrique euh, lu itte yéen a xëy xëyate ñu ànd seeg euh, Rokhia Sall salaamaaleykum. waaleykum salaam waat Elimane. Mm. li ëtt yëglekaay yi xëy tey dañu koy dooree ak direct news mu daal di fësal ci xët mu njëkk flambée du prix de la viande euh, et perturbation dans la distribution du gaz butane maanaam rek li nga xam ne mu di njëg yu yokku yi ci wàllum ndawal gi jëm ci wàllum ndawalu euh, xar ak euh, li nga xam ne moo di nag ak yi ñu mel ak li nga xam ne rek moo di gaz butane bi nga xam ne daal di nay manqué ci réew mi ñu ne loolu lépp nag laxisme du ministère du commerce et le jeu de. Euh, total maanaam léegi lépp yëpp la jub ki nga xam te moo di ministre du commerce la lii euh, le quotidien yéenekaay portion congrue pour le Sénégal li mu xam ne rek moo di pèlerinage à la Mecque euh, li nga xam ne moom la ñu jagleel Sénégal ci li ñuy ci liy war a génn ci réew mi daal di aji fële ci diwaanu Makka mu ngi toll ci ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak euh, juróom-benn ay pèlerins yoo xam ne rek moom la ñu autorisé ñu dem ñi nga xam ne nag ñoo ñooy privé bi ñoom ñu ngay réclamer rek li nga xam ne moo di quota yu bëri yi Le Soleil yéenekaay daal di fësal ci xëtam mu njëkk finalisation des travaux des aéroports aéroport de Saint-Louis et de Ourossogui li nga xam ne moo di njeexantalu euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal jëmale ko ci aéroport bu Saint-Louis ak euh, Ourossogui ñu nga ca ndax réception et essai des équipements l'info quotidien Sonko et Sia chante réel lépp lu jëm rek ci wàllum li nga xam ne moo di Euh, élection législative mise en place d'un cadre parallèle à la messe loolu la sonk daal di euh, indi ci euh, yeewu askan wi rek daal di créer créer waat rek beneen slogan bu yees daal di koy dippee li nga xam ne moo di réel les socialistes exorcent leur démo ñi nga xam ne nag ñoo di social waa parti socialiste nag ñu ngay wanewaat seen bopp ndax kii rek di Aminata Mbengue Ndiaye mu ngay xam ne rek ne waa PDS waa PS ñoom du ñu des ginnaaw benn yoon ci li nga xam ne moo di élection législative yi ñu dégmal l'exclusif yéenekaay daal di fësal ci xëtam mu njëkk vote de la loi portant protection de la femme en état de grossesse Hélène Tine applaudit mais attend les décrets d'application li nga xam ne moo jëm ci projet de loi ba ñu jébbale woon euh, pencum ndaw réew mi niki fan yi ñu génn dépp rek jëm ci voté li nga xam ne moo di jigéen ñi bu ñu wonee lool rek ñu mun a am li nga xam ne moo di certificat buy wane rek war nañoo mun a reposer wu kii nag di Elentine mu nga cay euh, mu ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye la mu xam ne rek moo di bu ñu ko voté ba pare nañu ko daal di appliquer ci réew mi Dakar Times daal di fësal ci xëtam mu njëkk conséquence de l' intervention militaire en Casamance pénurie de chanvre indien à Banjul li nga xam ne rek moo tukkee ci opération militaire bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal fële ca diwaanu Casamance suñu armée bi tukkee moo di pénurie de chanvre indien la ñu nemmeeku fële ci diwaanu Banjul maanaam rek ñax bu tooy bi nga xam ne moom lañ fa doon tux dafa manqué lool lool 24 heures yéen kaay daal di ci xëtamu njëkk ba di Yewwi daal di dem ci beneen slogan di koy dippee li nga xam ne moo di la ñu 24 heures yéen kaay fësal euh, ci xëtamu njëkk notre parti restera debout pour la conquête du pouvoir selon Aminata Mbengue Ndiaye loolu la xam ne nee na waa euh, waa PS ñoom dinañ daal di jugaat bu baax a baax daal di euh, jotewaat ci li nga xam ne moo di pouvoir bi ndax ñoom rek du ñu des ginnaaw benn yoon libération daal di fësal ci xëtamu njëkk inacceptable moom rek la xam ne duñu ko nangu maanaam rek ab soxna boo xam ne da doon euh, am doom rek moo daal di faatu gannaaw ba mu xamlee rek ne waa hôpital ba nañu ko opéré ndax rek sonn na lool waaye nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon sage-femme yi doon ko ñàkkee teggin ak a ñàkkee kersa borom këram ak waajuram bu jigéen fay jaare eh, ñàkk bakkanam loolu rek lañu ñu daal di xam ne ci seen xet bu njëkk ne duñu accepté benn yoon ñi nga xam ne rek ñu di jigéen yi wan lor yi di ci ñàkk seen bakkan alerte quotidien réunion houleuse eh, du bureau politique du PS ñi nga xam ne nag ñoo waa nekkoon waa PS ñoo doon amal ab ndaje bu yaatoo yaatu ci seen biir ki di na Mbengue Ndiaye nag nekk njiit la mu ngay xam ne rek copieusement malmené moom nag mu ngay xam ne rek ay kàddoom démb moo nekk bu tey ne njëkk waa PS duñu des ginnaaw benn yoon li mu soxla rek moo di ñu booloo daal di nekk benn daal di gagné li nga xam ne moo di euh, élection législative yi ñu dëgmal teral quotidien trafic de bois dans la commune de Ndorma un trafiquant mortellement touché par un agent des eaux et forêts lo xama de la xamal ci xët mu rek trafiquant de bois la de daal faat ak bal ñu ko ko def nag du ñenn ñu amal ab opération euh, ci àllub Casamance bi daal de fay nit dagg garab te rek koy ci tribune a l'obligation du Mourir loolu la ñu xam la mu di presse sénégalais bi nag jot na ñu daal di booloo wala rek ñu tasaaroo ba faw euh, li nga xam ne moo di 39 partis et mouvement à l'assaut de Benno Bokk Yaakaar fii ci biir benn Bokk Yaakaar daal dinañ ci nemmeeku lu toll rek ci fanweexi parti ak juróom-ñeent malaise au sein du PS loolu la ñu xamal source a Euh, euh, les coulisses écartellement entre Fobeno Bokuyakar et Yewi Gëm Sa autour d'une forte coalition en direction des législatifs du 31 juillet Manam rek ñetti parti bi ñetti parti yi di Benno Bokuyakar Yewi Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp ñu ngay liggéey bu baaxa baax rek ngir dëgmal li nga xamné modi élection euh, yi né rek kenn ku ci du ko bayé sa morom le vrai journal Macky lance la reconquête capitale débouche de pluie de euh, de l'opposition à Dakar maanaam rek ki nga xam ne moo di Macky nag mu ngay liggéeyaat bu baax a baax ngir dajale waat ngir rek gagné li nga xam ne moo di capitale sunu gaal di Ndakaaru Ndiaye jëm ci élection législative yi grand rentrée politique post Covid la PS fait son fait ndëpp maanaam rek waa PS nag gannaaw ba nga xam ne rek daawoon nañ sukk seeni oom ñoom nag ñu ngay bëri waat rek di jukk ndax rek ñu ngay ndëppaat seen bopp bu baax a baax ngir gagné li nga xam ne moo di élection législative Le pré-procès semble critiquer Yenekaay le PS condamné par la euh, léthargie et limobilisme ñi nga xam ne rek ñoo di PS euh, ñu ngay liggéeyaat bu baax a baax rek ngir dajaloo waat ngir rek mun a amaat doole jëm ci li nga xam ne moo di élection législative yi ñu ma loolu la ñu xamal ci xët mu njëkk yéenekaay bés bi le jour reconquête de la capitale Macky dop ses troupes maanaam rek li nga xam ne moo di. lépp lu jëm ci wàllum élection législative fu Macky mu ngay dajale waar rek ay nitam ngir rek ñu daal di koy gagné nee na nag du bàyyi benn yoon rek moom jiite réew mi Macky Sall réew mi le quotidien Casamance un trafiquant de bois abattu par balle moom la ñu xamal ab trafiquant boo xam ne rek da doon dagg garab yi ca àllub Casamance ba moom la ñu daal di faat ak bal ñu ko amal di suñu waa. takk der yi di eaux et Macron et Marine Le Pen au second tour lépp nag lu jëm ci élection yi fële ci diwaanu France élection présidentielle yi kii di Macron ak Marine Le Pen ñoom nag ñoo daal di dem ci ñaareelu wërngal bi Walf Quotidien descente sur le terrain parrainage idi est enfin sur le terrain lépp rek lu jëm ci wàllum parrainage ba euh, euh, ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck fële ci diwaanu Thiès nag moom daal dinay dellu siwaat bu baax a baax rek ci làng gi li mu ñu xamal moom Vox Populi Sonko ici passe à l'acte réel ki nga xam ne nag moo di Sonko daal di nuy jugee rek ci slogan bu yees ba di yeewi daal di nag xamle rek ne dañuy dem ci acte réel maanaam rek loolee la fësal ci xëtam bu njëkk moom Vox Populi concertation pour l'augmentation du nombre de députés yeewi sans la les mais ñoom nag ñu nga cey raxasu bu baax a baax lépp lu jëm rek ci augmentation bi nga xam ne moo di député yi fële ca diwaanu assemblée euh, euh, assemblée assemblée bu nationale bu Sénégal 14160 signatures remises à Moustapha Niass loolu la ñu xamal moom Vox Populi lu toll ci 14160 signatures moom la ñu jéppal ki nga xam ne moo di Moustapha Niass nekk njiital assemblée nationale. Euh, L'Observateur yéen kay Macky lance l'assaut contre Yewwi et Siye ki nga xam ne nag moo di Macky daal di nay euh, tax defarwaat bu baax a baax rek ngir jàmmaarloo ñi nga xam ne ñoo di Yewwi askan wi lépp rek jëm ci élection législative yi ñu dëgmal.

moom la ñu xamal législatif et bataille de positionnement au sein des Benno Bokk Yaakaar lépp rekk lu jëm ci élection législative waa Benno Bokk Yaakaar nag ñoom ñu ngay amal rek ay position yees kenn ku si nekk rek di ràcc jëmale sa kanam les échos yéenekaay yaay Fatou Diagne milite pour le départ des papi maanaam rek lépp lu jëm rek ci élection législative kii di yaay Fatou Diagne nekk maire bu Ngathie-Nawlé moom nag mu ngay xam ne rek ne ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci temps wu Senghor Macky dañoo di cédé la place daal di xajal yi nga xam ne ñoo digg euh, jeunes yi ñu ñëw liggéey loolu la ñu xamal Macky crasse ses vérités Amadou Ba et si euh, kii di njiite réew mi nag daal di nay wax ay dëggam yu xat ki nga xam ne rek moo di Amadou Ba las quotidien le plan de Sall pour reconquérir Dakar li nga xam ne rek moo jëm ci plan wu njiital réew mi ngir rek gagné li nga xam ne moo di fële ci diwaanu Ndakaaru Njaay loolu la fësal ci xëtam mu njëkk moom laas yéene investiture des jeunes capables de soutenir toute forme de contradiction bu ñu sukkandikoo rek ci Abdoulaye Mom la xamle ne sur les législatives euh, l'essence de la coalition républicaine Sam sunu réew élection législative ñu daal di si nemmeeku geneen parti gu yees gu ci euh, juddu di wuyoo rek ci coalition républicaine sam sunu réew moom la ñu si nemmeeku candidature des benn Bokk Yaakaar au législatif à Kungel, des apparestes investis jama sec lépp rek jëm ci élection législative foofee ci diwaanu Kungel apériste yi nag daal di nañuy samp rek seen njiit di wuyoo rek ci Madiama Seck stade yéenekaay Sadio fête son anniversaire en saveur des Reds ki nga xam ne nag moo di doomu Bambali bi nekk fële ca Liverpool Liverpool mu nga doon féete rek li nga xam ne anniversaire am réew mi sport plus euh, Sampoli et le coach le plus nul au foot euh, ki nga xam ne nag moo di Pape Gueye li mu xam ne rek moo di Sampoli moo nekk coach bi gën a nilaar ci euh, football Mané buteur loolu la ñu xam ne gannaaw rek match bi nga xam ne dox na démb ci diggante ñi nga xam ne moo di Manchester City ak Liverpool daal di fësal ki nga nataalu ki nga xam modi domi di doomi Bambali bi di Sadio Mané mbay euh, Mbaye Diagne retourne en première désiré sunu làmb se reconvertit son avarié défaite contre Ama Bombardier di tout ki nga xam ne nag moo di Bombardier daal dinay dikkaat bu baax a baax rek ci làmb gi nga xam ne doxoon na digganteem ak kii di Ama seen moom nag daal dinay xam la lépp la nga xam ne daal dina cee tukkee ci boobale euh, combat Elimane fii la ëttu yëglekaay yi yem niki tey ci suba moom dañu xëy. am na solo. ma ne ko am solo wa ci kanam tout rek incha allah rabbi ñu ñëw ak yéen ci li nga xamantene bi mom moy euh, yaatal gi Sunu Kër FM seeni kër laa ma dégloo dégloo dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu

huit vingt quatre minutes moo daal di jot euh, di ko kontaane bu baax a baax soxna Ndeye Rokhaya Sall ci euh, xibaaru yéenekaay maanaam li ci yéenekaay li ëtt yéenekaay xëyee tey macha allah mu nekk lu am solo euh, liñ ci jàpp nag bëri na bokk na ci politique ak waa PS ñi nga xamante bi mën nañoo wax ne sax parti la boo xam ne euh, suulu woon na waaye dafa mel ni fan yi dañoo bëgg yëngalaat ngir nekkaat doo topp euh, ci xanam te dañ ko waxtaanee waaye itam dinañ waxtaanee aussi ak euh, trafiquant de bois bi nga xamante ne bii faat nañu bakkanam ki ko faat nag mooy suñu agent eaux ci kanam tuuti dinañ ko dinañ ci dinañ ko gën yaatal waaye itam foofu noonu ci diwaanu luga ab sage boo xam ne négligé na benn benn jigéen bu mu ci bu muy mucc ba moom mujj ñàkk bakkanam. loolu tamit dinañ ko waxtaanee waaye tam ak euh, Ousmane Sonko bi nga xamante ne bii nee na dañuy changé waat beneen slogan euh, indi lu bees loolu tamit incha allah dinañ ko waxtaanee ci kanam tuuti ñu dooree ko rek ak euh, waa PS ginnaaw bi nga xamante ne bii parti boobu daanaka liñ ko doon dégg sax bëriwut mel ni def dafa demoon ba naax saay suulu ginnaaw bi nga xamante ne Abdou Diouf moom moo ko jiite woon fii nii dem Ousmane Tanor nekk ci. waaye dafa mel ni daal PS léegi moom daanaka mooy loolu euh, kenn du leen tudd daal xaw ma lan la daal ñoom daal dañoo suulu daal dafa mel ni dañoo bëgg a pour nekkaat topp euh, Cheikh Tidiane Dansokho. Mm. Euh, Eli. Mhm. li bi xëy daal di génnee lu am solo la. Mhm. gis nañ Bokk Yaakaar ci élection yi ñu génn. Mhm. maanaam dafa nërmelu ci yenn région yu mag yi lu mel ni Dakar ak Thiès. ak Kaolack. waaw Kaolack moom euh, boo gisee gars yi dañ doon wax changement. Hmm. mais euh, balaa maa wax Dakar damay wax Kaolack. Hmm. ndax Kaolack euh, doonte benn bokk yaakaar am na fi doole trop macha allah te ci ay information gis naa ne benn li lim jot am ci parrainage jot na fa jox ko waa APR daal di fay rejoindre. Hmm. xamaguma nag lan moo waral li ni mel. te Eli politique dafa doon lu doy waar. Mhm. Ah, ci information yi ma jot léegi ñu ne waa mairie ba ña ngay grève eli mhm. mu doon loo xamante ne dañ koo yàgg a préparé te eli buñ fàtte ne gis nga gars yi dañuy jaawale balaa maa dee ñu ne nañ fi jëlee politiciens yi ñan lay ñu indi. Mhm. ñun ñëpp dañuy def la politique xam nga lu tax. la politique ci grec mooy l'art de gouverner. politique mooy l'art de gouverner comment gouverner. Mhm. tey rajo suñu kër FM boo gisee mu yegg si fii Njawar day def la politique maanaam politique maanaam da koy jaay comprendre politique mooy da ngay xool nan ngay def indi journal indi rédacteur en chef rédactrice indi ay éléments ay journaliste ay animateur da ngay def politique pour say affaire yokku mais ñoom dañu foog ni booy def politique rek da nga war a far wala da nga war a saaga non non politique c'est l'art de gérer la de gérer boobu nag dafa am dañ koy préparer te boo gisee APR si yëpp maki Sall teel leen a araftu ne amul liste parallèle amul dara xam nga maanaam suñ parti politique yi. Mhm. nit moo koy moom. parce que tey bu fi Macky jógee APR de comme ba fi ab Abdoulaye jege jógee PDS gis nga amatuñ dara. Mhm. parti yooyu yëpp noonu la donc pour man parti bi pour ñu sauvegarder ko il faut que mu am ay leaders yu mag lu ci mel ay Mimi Touré ay Mariama Sarr. ay euh, kii nu mu tudd Mouhamadou Boun Abdallah Dionne il faut que mu am ay bopp parce que ñooñu ay tête lañ xoolal tey Macky Sall mi ngi door a reconnaître que Kaolack Mariama Sarr moo ko moom. te gars yi dañoo dem mbuxum ko nax ko ne noo boo sampee daam bi da ngay daanu alors que loolu yëpp dara dara dara dara doonu ci dëgg furaat daari xaddim buñ koy analyser au niveau de la région de Kaolack buñ koy analyser bu ñu koy analyser ak yi ngay dégg yenn feey yi ngay dégg biir mairie ak ci boo demee ci grand place yi yi ngay dégg ba ci barki démb rek nday mari aju moom mu ngi toog fii di ko wax naan ñi nga xamante ne voteloon nañ maire bi nekk fi ñu ngi koy commencé di di xalab mu leeral kon gars yi amuñ choix maanaam dañoo nekk période boo xam ne élimaan nit ñi mën nañ folli mais mënuñ fal te nan la ñuy follee dañuy folli ak mer di fal ak mer ku ko ciy def jàpp yaa ngi def erreur parce que man man faraluma kenn man Kaolack la faral lu tax ma faral Kaolack ndax développement Kaolack sama développement la ndax fii laa dëkk fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa jànge donc duma dem di tagg Dakar duma dem di tagg refiske duma dem di tagg kenn man sama dëkk moon moomu ñor ndax buñ defaree sama dëkk ndax gis nga ñu bëri dañ doon wax Kaolack daa bëri yoo léegi gis nga léegi yooyu wàññeeku nañ léegi kay da nga naan ay Saint-Louis ay Rufisque moo dese yoo ak biir Dakar quelque part mais Kaolack moom macha allah yar de quartier yi te gis nga éclairage public bi mu ngi avancé bu baax gis nga tali yi yooyu noonu yëpp donc moo tax ma ne bu ñu waxee ne politique ay duma def politique du ma jox politiciens yi dëkk bi duma ma def li ngay wax xamoo ko ñàkk xam li ngay wax dafay dafay dem ba doo ba dooy waar te te nit ñi buñ falee ba pare ci li ñu door a wëññeeku di def ay marche Eliman yow xam nga li ma la wax hmm. fal ba pare nday roqee saal wëlbatiku ne da ngay saaga waa ji fekk yow yaako fal yow yaa ko fal da nga doon fal maanaam yàlla nee na bu ngeen di tànn njiit xool leen ko bu baax a baax a baax ndax lan lay bañ lii parce que munoo fal njiit pour dix ans mu toog un mois nga bëgg koo saaga tu vas suivre les dix ans far force te tey boo gisee gars yi ñu naan dañoo bañ Macky nii sangam tey bu ñu foli woon Macky fal kooku bu dikkee le temps muy régulariser affaire yi tey mu dee dana dégg lu ne donc moo tax ma ne la gis nga nit ñi il faut que ñu revoir seeni affaire bu baax baax a baax te jamono jii ñu nekk du lépp la ñuy wax man lii laa am ci lu may wax ci politique yi nañ nañ ñoom ñëpp nañu rassembler muy yeewi askan feneen fi mu bëgg nga ñëw mooy euh, PS. Mm-hmm. Euh, parti socialiste bi nga xamante ne bii euh, amoon na fi jamono. xam nga ne parti sa ku waxoon Sénégal wax parti socialiste am. Mm-hmm. benn place boo xam ne amoon na ko ci Sénégal euh, mu nekkoon parti boo parti boo xam ne dañ ko respecté woon euh, bu baax a baax euh, ñu gis ne Abdou Diouf moom moo ko yore woon bu fi jógee Ousmane Tanor Dieng doxal ko ba jamono ji yaakaar naa ñoom Khalifa Sall ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yore su ma juumut. Khalifa dañ ko dàq. fi mu toll nii Aminata Mbengue Ndiaye. Aminata Mbengue Ndiaye voilà mu ngi noonu. moom moo nekk seen njiit ñu gis ne parti boobu léegi dafa suux. ci liñ mën a wax parce que buzz bi ñu amoon bu njëkk léegi amatuñ ko. mais ba léegi Elimane doguma la ba léegi. Hmm. xam nga lu ma ne ba léegi PS existe. waaw mu ngi exister mais buzz bi ñu amoon bu njëkk amatuñ ko. waaw xam nga lan moo ko indi. Hmm. coalition bi tey Khalifa Sall bu yàkkamti wutoon. Hmm. xam nga ay ñoom Serigne Mbaye Thiam gis nga PS euh, maanaam ñi nekk ci gouvernement bi ñu ci ëpp ay PS il faut nga xam loolu. gis nga PS bu ñu jëloo seen base kenn du leen ëpp mbooloo. Khalifa Sall dafa yàkkamti nañ la investir Tanor day dem yàlla def Tanor génn àdduna yow nga yàkkamti ñu def ñu def assemblée générale daal lay exclure ci parti bi te fekk parti bi yow yow ci ñi ko sos yow waxuma la bokk nga ci demee bokk nga ci ñim formé loolu la ñuy waral yà loolu lañuy loolu la olof Njaay di wax yàkkamti yàqule loolu la olof Njaay di ko wax moo tax man pour man parti socialiste parti socialiste lay doon ba keroog parce que ñoom euh, defaraat nañ seen seen seen seen siège bi nekk Colobane macha allah boo fa demee da ngay xam ne parti socialiste ça existe nit ñaa ngi dugg ko génn defaraat nañ ko ba mu rafet par rapport ak yeneen parti yeneen parti tey boo demee seen siège lu mel ni PDS siège ba fi ne nii euh, maanaam pancarte ba daanu na photo Abdoulaye ba fa nekkoon màgget na mu waral ne ñiy toppuñ sax parti bi moo waral nit ñi toppuñ sax instant bi li ma la rek ñaari parti ñoo fi am PS APR coalition yi. ay coali ah moo gën a taxaw ah, PS Cheikh Tidiane Dansokho PDS gën a taxaw. <laughs> nee naa la parti moom déggatuñ ko ci benn activité. déggoo lu ma la coalition la def moom mm. dafa dugg ci biir coalition bi nan lay mënee ay activité mais tetam yi tet tet yi tet yi ci boppam ñi ci biir coalition bi. xam nga xam nga coalition boobu xanaa moom moo ko rat moom moo ko suul. waaw ba moom mënatul feeñ fenn. maanaam doo ma dégg par rapport ni ngay déggee PDS di dégg APR donte APR mu ngi si coalition benn bokk yaakaar mais yaa ngi koy dégg. AFP da nga ko dégg. AFP déggatuma ko. waaw dama ne la coalition Benno Bokk Yaakaar ngay dégg te pourtant Mariama Sarr AFP la maanaam boo déggee ma la wax maanaam PDS bokku PDS bi ñi di dem ci. yeeyu askan Mariama Sarr. Mariama Sarr AFP la. la woon. waa mais ba léegi xam nga lu tax. maanaam da dama lay wax ne la la coalition la ñuy wax instant bi. PDS bi ñëpp di dem coalition yeewi askan bi PDS daa beru ne nii. Hmm. toog jàpp ñàmburam Bamba Fall toog am na ci ñoo xamante ne duñ dem ci coalition PDS moom nee na parti bu mag la du dem ci coalition PDS. Hmm. ñoom dañuy préféré te tout récemment am na benn waay bu jege benn maire bu jege PDS daal di relais ci biir coalition bi gars yi laaj ko mu ne man ba tey maa ngi PDS mais il faut que ma relais wu daal di dem la xew géejawaay ba ñu naan ba ñu naan waa PDS ñoo votel kee ba ba ba ba ba waa APR daal di am majorité bi mais politique dafa garaaw dalay leen ne PDS du sottil yeewal askan wi. parce que ñoom déggoo lu ñu wax ñoom dañ ne la ñoom parti bu mag lañ duñ topp ci gannaaw xale. mais dans ce hmm. man du ma mënta d' accord. mënoo xàmmee ku bokk PS PDS Benno Bokk Yaakaar xam nga Benno Bokk Yaakaar coalition la. coalition la waaw kay mais APR moom mooy parti bi. Hmm. nit ñi comprendre nit ñi dañuy jaawale APR Benno Bokk Yaakaar APR mooy parti bi Benno Bokk Yaakaar. coalition la biir coalition bi nag. Hmm. tu te trouves PDS PS APR AFP ñëpp. non PDS sax bokku ci. noo am na si ñuy si rallier di ñëw ci coalition ah, bi am na ñuy ñuy hmm. rallier di ñëw di bokk ci biir coalition bi hmm. moom tax ma ne la fi mu toll nii mënatoo xàmmee ku bokk fii ku bokk fii ak ku bokk fële waaye man di mu mën a nangu mooy PS PS laa la wax de xaw ma ban at nag lay doon xaw ma ko mais ñoom duñ mus a dee parti socialiste du mus dee. xam nga lu tax parce que li ñu naan li nga xam ne moom mooy racine bi fii politique parti yi fi nekk yëpp racine bi parti socialiste la moo démarré lépp PDS doog a ñëw gis nga ñaari parti yooyu noonu. day métti rek mais ñoom duñ dee mukk xam nga maanaam mun nañoo toog amatuñ doole yëngatuwuñ nangam nangam defuñ dara loolu am na tam ngi jaay ñëw waxaat nee na ñun duñ mës a sukk dañoo ñëwaat pour jëlaat pouvoir bi jëlaat pouvoir bi nag du ko nangu loolu du ma ci ànd ak moom parce que sénégalais bu xase ba folli folli na. Hmm. ñoom dañoo si euh, si ni ma la déggee bu baax a baax ñoom dañoo bëgg a génn ci coalition bi. waaw dem demal seen seen bopp. parce que ñoom dañoo jàppoon ne seen biir dañoo am ñu leen doon war parce que dañuy wax naan kii sëriñ Mbacke njaay moo leen jaay affaire yooyu noonu. Mhm. xam nga loolu yëpp ñoom ñu ngi jox jiiñante tuuma ci seen biir. Mhm. léegi ñoom dañoo bëgg a defaraat seen parti. Hmm. bëgg a toofaraat seen toogaay. xool ba nu yoon bu baax lañ mën a jaar ba mun a jugaat ñoom loolu lañu bëgg mais P PS deewut. loolu mu amut moom deewul suuluñ ko ah. moo ngi fi. Ah. parce que parti bu fi munti nekk fi ci Sénégal mooy nday parti yi comme RTS. mooy ndeyu télé yi mooy ndeyu télé yi parti socialiste nag mooy ndeyu parti yi kooku hmm. kenn mën a ko fee jëlee hmm. dañuy wax ba dee rek mais moom du fi jug lenn kay la ñu mën maanaam ñu mën a ñëwaat amaat buzz loolu la ñu am fi mu toll ni amuñ ko parce que booy xool euh, jàmbaar yi ci nekkul yëpp ñu ngi daw di dem parce que damay jàpp ne ñu seen bopp fii nag gaynde yu jigéen yi ñoo fa des xam gaynde bu jigéen moom du bàyyi. Mhm. ñoom ñoo fa des di defaraat loolu moo dal waa parti si parti PD parti euh, démocrate sénégalais na mu PDS nag ñoom. Mhm. ñooñu mënoo wax wax wax wax wax wax wax bañ ràll yi di dem ci benn coalition. man de loolu ma jaaxal ma. xam nga lu tax. Hmm. borom parti bi mu ngi fi ba léegi. Hmm. te fii ku fi politique moo la dàq politique. mooy Ablaye Wade. Wade maam Wade. moo ngi ba léegi moom demul puusu randuwut. Hmm. moom du fekk benn coalition. xanaa mu jug fi yàlla na yéex waaye parteem fekk moom mu ngi dund duñ fekki coalition. Hmm. xalaatuñ ko duñ ko def. ba mel ni euh, PS tamit euh, benn affaire dafa am si ñoom euh, rarement ngay dajeek ab ndaw rek boo xamante ne bii dalay wax ne man ci PS laa nekk. ña fa nekk yëpp ay paa lañu man loolu ma xaw a jaaxal. loolu la yaay Fatou Diagne wax sànq ci journal bi bi may liir mu ne. Hmm. dañu soxlawuñ papier yi lañ bëgg ñu jóge fi. Hmm. maanaam ñi nekkoon fi temps wu Wade Diouf ba Macky lañ bëgg ñu jug fi xajal jeunes yi parce que jeunes yi amuñ baat ci parti socialiste boo bëggee dégg dëgg Elimane foofu laa bëgg nga ñëw jeunes yi amuñ fa baat mhm. amuñ dara lu ñuy jëlal seen bopp en action defal ko seen bopp amut. Mhm. yëpp paa yi maire yi ñoom ñooy jiite ñooy jël les décisions ñoom ñooy wax ñooy tracer la euh, le chemin xale yi topp ci ginnaaw doo dégg mukk ñu ne man maay coordinateur wala maay lii wala maay laa xale yi joxuñ leen dara tànk nag ñoom joxuñ xale yi defi bi duñ ko yëkkati. Mhm. dañoo war a jox xale yi ñoom ñu doxal. ñoom ñu xam ne retraité nañ mais nañu waxante dëgg dañoo retraité. ñoom yee weesu lañ sax retraité. parti baa yi de koy woowee dañ koo weesu. Mhm. PS ñoom ñoo war a innové waat créé waat jël jeunes yi teg leen ci kanam fii parti yi fi dox yëpp jeunes yi la. ci mhm. xoola yeewi askan wi. coalition la. Mhm. du parti waaye xool leen xoola parti Pastef. APR nag donte ay paa ñu ngi fa mais booy xool jeunes yi ñoo fa ëpp. Mhm. mais parti socialiste lan moo tax ñoom tamit mënuñoo jox jeunes yi ñoom tamit ñu diriger ñu dem ñu xool ba xam ñoom liñ bëgg duñ ko am. mais tant que ñu ngi jël maire yeeg paa di leen teg si kanam du gaaw de parce que ñoom image yi ñu doon gis ci ñoom démb. Mhm. moom la ñuy continuer di gis tey. moo tax askan wi duñ leen wóolu. Hmm. dañ leen jox te ni <laughs> mu ngi noonu euh, Cheikh Tidiane Dansokho. Mhm. ci ci ci ci noo gisee tamit parti bi euh, jamono ji xam nga dégg nga li soxna Roxee wax nee na euh, Aminata Mbengue Ndiaye taxaw na ngir jéem a xool naka la ñuy yëkkatiwaatee li nga xamante ne moom mooy parti socialiste xam naa ne bu ñu koy def moom foofu foog ñu génn ci coalition bi ñu ñu ñu dem def seen yëfu bopp ndax gis nga loolu am na avenir si ñoom. ah bu fekkente ne ne ndaw ñi gëm nañ leen xam nga parti socialiste tamit ñoom dañuy former ay ndaw. Hmm. ñoom seen parti seen seen maison du parti boobu noonu boo fa demee nii da gis ay ndaw ñoom dañ lay jàngal politique. Hmm. mooy gis nga ay ñoom Khalifa gis nga leen ñoom politique bi ñuy jàng doo gis sax ñuy saaga. Mm-hmm. ay ñoom Serigne Mbaye Thiam ñoom dañuy jàng politique. Mm-hmm. ñoom nekku na dañ lay recruter rek dugal la ci langue politique yi la oto jox la jox la xaalis ngay yàqate non non ñoom dañ lay jàngal politique administration. donc moo tax ñoom ñoom parti parti bu mag lañ de macha allah parti bu mag lañ c'est-à-dire nag Ablaye Wade moo jàngal Macky Sall politique moo tax Macky mën politique Macky Sall dafa mën politique macha allah waaw ah, man mais mais tamit mais tamit waa waa euh, waa PS. ba ci waa AFP sax dañoo mën politique parce que ñoom ay ay ay kii lañ xam nga léegi Elimane il faut nga xam ne politique gu xale yi jeunes yi léegi xam nga politique bi lan la. Hmm. ma wax ko dee maanaam saaga la politique yëpp saaga la. ak wutum xaalis. waaw politique politique politique nou nouveau type de sénégalais bii politiqueul day saaga parce que da ñëw di da ngay ñëw toog télé di def débat di dee sax ñu commencé di la di la di la manqué de respect di la saaga su ko defee gars yi. kàcc kàcc yi ndaw ñi dañuy bañ nag de. paa yi loolu du bañ. Elimane déglu ma rek loolu du bañ nit da ngay respecté sa bopp. Elimane saaga fajut dara nit day respecté boppam. paay dañ leen dañ leen nootoon de. déedéet Elimane Elimane Elimane nañ bàyyi di ñu gëmloo ay paay dañoo noot nañ fi jëlee paay te jeunes yi amuñ compétence amul benn sens. nañ ko wax te dee am na paa yoo am na am am na jeunes yoo xamante ne paa yi ñoo leen tane. Hmm. da nga fiy jox jeune mu dem jënd 4 4 am hors série ah ñëw. am na yenn entreprise yoo xamante ne yenn âge yi boo ko amul duñ la jox yenn poste de responsabilité il faut nga am jabar am ay doom am am yenn yenn âge yi ay 40 ans wala 45 ans ñu door laa mën a jox poste de responsabilité di nga dem yëkkati benn jeune fee 30 ans rek di ko jox oto 4x4 nga xam ne day tolloog day tolloog xale jeunes yi xale xale jigéen yi âge nga gis mu commencé dem ci ay hôtel du xam ne moom dañ koo jox poste de responsabilité. mais ak i jeune am. mais non mm-hmm. moo bëri ci xoolal ñaata jeunes ñoo fi nekk yoo xamante ne boo nee tag liñ yor dem jënd iPhone ñëw sinap jël rouge à lèvres bi def seen tuñ di commencé di di di charmer xale yu jigéen quatre cent cent xale yu góor bu ñu àndee ñaar ñi ñoo ci responsable wala benn bi ñaata xale xale yu góor ñoo fi nekk irresponsable xale yu góoru Sénégal xale yu jigéen yi sax parfois ñoo leen di gën a responsable nañ ko waxte dee imagine toi yow dañ lay fal tak euh, góor nga am ay 30 ans 35 ans lan ngay jëga xalaat détournement commencé am ana ana ana booy yuñ dugal fii ay impôts domaine yoo xamante ne jaar jaar jaaruñ jaaruñ euh, concours dañ leen a nii par branlo boo yaa ngi boo boo ci dëkk bi tey yor seen oto ah yor yor yor yor euh, seen xaalis ndax ndax instant bi sa sa Kaolack suuf desatu fi comprendre dañuy jaay suuf ñu am ci benn benn quota loolu la ñuy dem loué mën nañ ko loué sax oto bi commencé di may xale jigéen yi ay 100000 di leen may ay 200000. su fekkee da amoon benn copain boo xam ne mënu laa may sax cent franc xam nga ne kee ngay topp Elimane am na yenn poste de responsabilité yoo xam ne doo ko jëkkati di ko jox di ko jox xale xale yi boo leen joxee sa parti politique ñu def ko ñu def ko guerre sanguinaire commencé di ko saagante wala di ko di ko ñu reyante foofu ndaje ndaje ndaw moo gis balaa muy dem dana am sànnante see dóorante nañ waxante dëgg nag il faut que ñu topp ci gannaaw paa ñu jàngal ñu lan mooy état bañ dem ba mokkal ñi door a jël relève waaye doo jël yenn poste de responsabilité naan ay mag ñi jóge leen fi xale yi ne ñëw xoolal léegi Sénégal politique bi politique bi léegi léegi léegi neexatul sax bu njëkk ba politique dafa neexoon ni ñi dañ daan dem di seetaan ay meeting lu ne lañ doon dem di seetaan mais léegi da naan du ma dem ndax dañ may xaañ xeer violence bi kan moo ko indi kan moo indi violence man da daan soxla d'accord ah. ma ak mm. yow ànduma ak yow wax man sama avis laa wax ku nekk sa point de vue waaw man sama avis laa mais dama ne la jeune léegi du ma yor sama parti leen ko jox xalaatuma <laughs> ah mu ngi noonu euh, Cheikh Tidiane Dansokho nee na àndul ak jeunes yi jiite parti yi euh, sax soxna Roxee loo wax ci loolu. man d'accord ndax lan. xam nga lu tax. Hmm. Euh, xam nga dañoo toll ci jamono ji dañ naan njaboot gi njabootu kanaara. Hmm. dañuy jiitu nga topp seen ginnaaw. Hmm. parti socialiste fi mu toll nii nañ xam ne njabootu kanaara lañ yor. ñoom dañoo jeexal seen i bal moo jeex. nañ toog si ginnaaw. jiital xale yi te naan leen def leen nii def leen nii. Mm, paa yi mënatuñoo dem daal. mënatuñ. Mm-hmm. nañ ba dañoo bëgg a euh, defarwaat dañoo bëgg defaraat seen toogaay dañu bëgg war relever waat le défi dañu bëgg a jëlaat pouvoir bi. nañ indi jiital xale mm-hmm. nañ jiital xale yi ba pare nag toog naan leen def leen nii def leen nii mais duñ leen jiital. bàyyi leen noonu de sawar nañ moom. bien sûr. Mm-hmm. te am nañ ay idée am nañ ay idée yoo xamante tey buñ ko indiwaatee jàng nañ yeewu nañ. waaye waxuma la ak waaye weesu nañ ko ñoom fajar lañ jug mhm. yewuñ ay 7h 8h de fajar salaata khair min no mi lañ yeewu won ñooñu kan mo leen mëna nelaw lo waat heure bobu nim nexé sangu nelaw jeune yi dañoo yeewu bu yàgg am nañ ambition nak conscient lañu am mhm. ba paré am ay bëgg-bëgg am xam fuñ jëm mhm. yaa ngi dégg bëgg changer nañ changer nañ changer ngir yalla ñom maire yi ñom ñi di wax ni ñom paa yi nañ xajal xalé yi jital leen ta te paré nak tok seen wet te bañ te bañ ñu leen di jënd bañ ñuy naan seen xel yi xam nga maanaam ñun Sénégal lan moo ñu sonal si politique bi. Mm-hmm. dañuy nekk di politique ba pare ne dañoo bëgg a defar xam nga kii dana seen l'art de gouverner. Mm-hmm. mais art de mooy lan defar sa dëkk defar sa réew lan lañ manqué lan lañ soxla. nangam ak nangam ngay dox si loolu suba ngoon léegi yow léegi da ànd ak ñoom si naaj bi ànd ak ñoom ci taw bi ànd ak ñoom ci ker gi ba loolu taxaw. Mm-hmm. léegi nag nga dem ak sa poos dem ak sa poos bi nag nañ ko arrêté. dem ak sa poos nañ ko arrêté nañ dem ak ak dem ak intérêt général. Mhm. te bàyyi intéret individuel bi ñuy demee. loolu fekk mu ci parti yi parti yi duñ dox loolu fekk mu ci politique bi politique bi dox fekk mu ci réew mi réew mi du dox nañuy dem ak intérêt général ma dama jàpp ne parti amul parti bi fi am mooy PS PS bi xam na la du parti socialiste parti sénégalais la. Hmm. mais du parti socialiste loolu moo am Sénégal. loolu nga jàpp daal loolu laa jàpp. Hmm. man man li ñu tuddee seen parti man PS bi man signifié wu ma ko loolu parti sénégalais laa ko tuddee. voilà mi ngi noonu mu nekkoon euh, ab pàcc bu ñu doon waxtaanee rek ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, euh, seen génn ñoom waa PS bëgg rek lancer seen parti boobu ñu ko doon waxtaanee leneen li ñuy waxtaanee nag moom mooy Ousmane Sonko. nga ne moom it dafa bëgg changement ci maanaam. yeewi lan moo fi nekkoon yeewi askan wi nee ah? ñu ngi si moom mu ngi ci yeewi ba léegi waaw ah, mu ngi ci yeewi waaye dañoo génnee benn slogan bu yes mooy réel maanaam dëggantaan dëggantaan waaw dëggantaan nañ nekk ci dëgg maanaam nañu passé à l'acte hmm. te bàyyi wax ci maanaam paa bi dañuy jëf te bàyyi wax dañuy sotewaat beneen paa daal waaw dañuy sotewaat beneen paa maanaam ñoom léegi dañuy jëf bu ñëpp gis hmm. su nee na ñoom si loolu lañ bëgg a dox pour élection législative ñoom ñu mun ko jël en mai ba pare te nee na ñoom d'accorduñ ci. Hmm. yokk gi ñuy yokk député yi si assemblée nationale. PAM jóge nañ ci 100. 67 xaw ma. 160 jëm ci 160. 12 172 député nee na ñoom loolu noonu ñu ngi cee raxasu ba set ñoom d'accorduñ ci ñoom bu ñu sañoon ñu def ko mu yem ba pare ñu liggéey te bàyyi wax ji wax ju bëri ji ñuy wax ci assemblée nationale ga te liggéey moom leen loolu la bëgg mu dañ fi. Hmm. moo tax mu daal di indi réel. Cheikh dans ro ah waaw moom comme eh, ay loolu ay propos la hmm. donc propos propos politicien man duma ci basé wu hmm. parce que parfois dañuy trahir seen propos ndax hmm, lan waaw xam nga ñoom ñëpp nee naa la kenn ku nekk da ngay nax sa morom pour gagner du terrain e. pour nit ñi gëm la seen discours yi à chaque fois loolu la parce que nit wax na fi ne ci élection maire laa yem tey déclaré ne day bokk élection législative donc moo tax waxu politicien moom jarul dóor sa doom moom daal nee na daal ñoom jugee nañ ca ca ca nelaw yaag wax ya ñu ci jëf yi ñoom fi mu toll nii daal na ñëpp jëf bu ñëpp jëfee réew mi jëm kanam. waaw mu ngi noonu moom Ousmane Sonko moom euh, bari na daal loo xamante ni daana daanaka ci moom bi mu kiyee bi léegi ay changement yu bari lañ demee ko ci côté ma parce que gis nañ ne am na benn kuréel goo xam ne moo ëmboon ñi nga xamante ne ñoom ñooy maire loolu tamit gis nañ ne euh, benn instant. Euh, daal dina daal dina génn ci kuréel googu te et moom dafa mel ni dafa amaalaat beneen kuréel goo xam ne euh, da koo taxawalaat ci côté côté maire yi tamit. waaw moom moom créé na maanaam association des maires. Mm-hmm. du Sénégal. loolu moom moo ko créé mu nga ca jugu moom moo créé beneen association. parce que benn boo xam ne moo fi nekkoon te euh, rakk njiitu réew mi jiite woon ko muy Aliou Sall. maire bu Guédiawaye dafa mel ni dafa am keneen beneen beneen association bu mu kiyaat tafalaat ci wet bi. waaw moom moo créé waat ba su boppam maanaam part parallèle la moom moo créé waat beneen jàpp ñàmburam moom Ousmane Sonko moom xam nga bu nit ñi jaaree droit moom mu jaar gauche moom ci yooyu lay dox. moom xam nga taalibe nit ci la booy philosophe bu mag boobu. Mhm. nee na moom ci différence rek lay dox. <laughs> mu ngi doonu euh, ñu ñu dalal ko xam naa dafa sonn nag soxna Ndeye bari daaw xam naa ne ndar la jóge <laughs> mari xam naa ne indaale nga sëri ca nag salaamaaleykum Bah, écoutez, j'étais en France. France, eh oui. ah, j'ai passé par Paris mm. et à Marseille. Où j'ai regardé le match de Bambadjan à côté de Pablo Sissé. Hmm, ah, je viens tout juste d'atterrir. Bambadjan à Bordeaux, hein. Bah non, j'ai pas eu le temps de passer à Bordeaux. Monaco nag peut-être peut-être peut-être la prochaine fois incha allah. Monaco jaaroo fa kon. non non demoo France. non non je suis passé par Marseille ku demul si ñaari dëkk yooyu. demoo ah. France yow si si si bi nga yem. France France France ay ci mu ngi doon ñu bàyyi la nga nuyoo. di leen ziar di baalu ñëpp ak eh, di eh, rafetlu ànd beeg teewlu bi. di eh, leen ziar soxna Roqe Cheikh Tidiane El maa ngi leen di ziar yéen ñëpp. mu ngi delloo ziar bu baax waaw ah, damay nuyoo rek daal di ko ciy tegaat nag. waaw mhm. ah, damay nuyoo rek daal di ko ciy tegaat. waaw. Ah, ay nekk si ay ay woy leneen li ñuy attaqué waat rek euh, soxna Roqe Sall moom mooy euh, li nga wax sànq rek ci xetu yéenekaay yi. mooy ca diwaanu Louga dafa am benn sage-femme boo xam ne fa négligé euh, benn jigéen boo xam ne da doon accoucher. 9h30 à 5h du matin ñu négliger ko ba mu ñak ñàkk bakkanam waaw loolu de moo am diwaanu Louga la amee ci hôpital Abdou Sakhir Guèye bu Louga mhm. moom astu la tudd bu jigéen bi da doon dafa won lor doon nekkoon ci bu di am doom sage-femme yi di de neuf heures trente à cinq heures du matin hmm. di ko négliger en même temps Euh, ñuy négliger ñi nga xamante ni ñoo di ay accompagnant mm, maanaam yaayam ak borom këram di leen xoqatal ci biir mm. hôpital bi mm. di leen yuuxu di leen wax lu leen neex daal xale bu jigéen bi sonn na ne ne moom dem na bu mujj gi ne leen opéré leen ma ndax sonn naa ñu ne ko soo bàyyiwul sa yuuxu yi dinañ dàq sa borom kër ak sa yaay ci biti ndax dag ñaar sonal ci chambre bi sa yuuxu yu bari yii di ko négliger di ko fontoo di ko maltraité ba noonu la mujjee ñàkk bakkanam mm. léegi loolu doyut ñu jox leen certificat de décès boo xam ne amul signature ngir masquer ñoom acte bi ñu def au lieu que ñu ne ñoom ñoo ko négliger ñu ne mort naturelle la hmm. ñoom loolu lañ di ñoom loolu lañ liggéey waa diwaanu hôpital waroon naa doon sama mbokk Mari Dabo ñoo ko déggandoo waroon naa doon sama mbokk ma ne ko ñoo ko déggandoo léegi yow li ni mel noo ko gisee c'est c'est comme parfois boo que déggee genre situation situations élément mhm. doo xam sax le commentaire mhm. parce que c'est tellement inhumain eh, xamoo ndax ni ay mala lañ wala parce que tamit ki dem ba waat man jàpp naa nit ki loo waat rek mhm. parce que bon des docteur bon génnee fac science fac tu euh, toi sax euh, médecine de faire sa thèse bon soutenir da ngay wat et je jure de ne pas tuer une personne volontairement. Le mot volontairement. c'est hmm. xam ne sama mhm. involontaire je na am mënoo Je dara ndogal suñu borom la suis nañ ko d'accord mais je sais, ne yow ci imagine 9 heures ci 5 ba 5 heures du matin nit di ko at Tu te matu. Mhm. nga koy romb de gauche à droite te nga waroon tu te ngay jigéen ni moom. amaana sax ña ko doon réew ay yaay lañ ni moom. Hmm. Hmm. ay yaay ni moom ndax régions yi ñu ci bari buñ leen di maye duñ am buñ duñ am majorité maturité duñ ah, duñ majeur bokk ci li ma bëgg a wax duñ am ay 18 ki ci gën a mag 17 ans lay am ki ci gën a ndaw 15 ans lay am wala 14 ans benn ci néglige la femme. Hmm. en en terme matoom métti na. yow boo ko xamoo lu tax mat bi yàggee ni cinq neuf heures ba cinq heures du matin nit di ko mat war ngaa mën a xam lii lan moo tax mat bi yàggee nii. doyut ay assistant ñi nga xam ne ñoo ko jëlee këram indi ko si hôpital pour mu mucc nga di leen jàpp di leen torturer comme ku yor say esclave. Mm-hmm. xam nga am na yoo xam ni il faut pas il faut taper sur la table bien fort même gis nga sage-femme yu ndaw yi ñuy bàyyi si hôpital yi ñuy def lu leen neex. ñu xamul dara même ne mer ndey mari daawa nit ñi tëdd ci lalu hôpital yi feebar ñu sol seen i cappe 35 centimètres. Mm. nekk ci biir hôpital bi di kokki kokki mel ni ku nekk ci sawaru Dakar wala ku nekk ci sawaru màdd finalement elum elum tempé tempanise boo bëggee dégg dëgg man li ma la wax hôpital bu régional bii heure bu ma fi duggee xuloo mm, ñoo yem man heure amul heure bu muy dugg hôpital régional te du ma xuloo mënul nekk mi ji mujj mooy ma mujjee hospitalisé sama yaay ay ki maa ngi ànd ak malade mu ne naa génn toog ci biti buñ ko buñ ma soxlaa man dinañ ma woo léegi imagine man sama yaay mi ngi ci urgence. Mhm. soxla na ma xamoo lu ma bëgg wax. Mhm. ñoom da ngay wax ma sama ki ma in ki ma àndal ñu nekk ci biir couloir bi taxawaalu. buñ la woo. ngay toog di nga maaral boo waye dee nag ba mel ni man toog ca taatu garab ga nag feex mi ëpp la nga toog ne koy assister fekk laaluñu ko sax. Mhm. wuñ ko. ñi ngi ci yeneen malade wala ñi ngi ci ñoo xam ni ñooy borom alal mu leen leen wuñ leen sauvé dinañ ci am dara wala ñi nga xam ni da leen leen ni dee nañ ba bare ñu bind ordonnance fukki junni ñaar fukki junni ñu jox leen garab yi ñu dem ko seen poche di ko jaayaat ci biir hôpital bi. ah bon loolu yëpp a ngi ci gis nga mafio boo bu xeetu bon teef gu bon mi ngi ci hôpital yi. Hmm. ñëw ko koo xam ni dafa damm jëndalu la plâtre. Hmm. di nga fay plâtre fay bandage. bu ci nekk ñaar lañ la ciy jëndaloo mel ni yow da nga am ñaari tànk yi dem benn tànk bu dem yu ci nekk ñaar lañ lay jëndaloo benn bi la ñu utiliser jël beneen bi def ko seen kees bu ñu paree di ko jaay seen koñ yi hmm. duñ ko jaay ci hmm. dañ koy jaayiwaat seen koñ wala ñu teg ak dil kii jaay pharmacien bi nekk ci biir hôpital bi bu ñu paree jox kees gi mu jox leen xaalis hmm. ñoom ñu di ko jaayaat ko patient yi ci biir hôpital bi xam nga loolu yëpp eh, nit ñi di ci teg seen bët te bu ñu àddoo ñu ne eh, ñoom Euh, maanaam dañuy wax leen neex te c'est des réalités yu nit yi dund chaque jour Elimane balaa nga ko xam nga jël sa euh, magnétophone bii wala sa dictaphone bi dugg ci hôpital bii bul sax dugg ci biir ci bunt bi rek. Mm-hmm. ki ku ci nekk lam lay wax du bokkoo la sa morom di wax ci assistant bi. bu amul benn qualité amul benn euh, loo xam ne rek nit mën nga man fii Sénégal benn hôpital laa fi gis ñuy ñuy accueillir malade comme il faut. mooy ban hôpital principal. Hmm, bu Dakar c'est des hmm. militaires. Hmm, gis nga foofu boo jàddee koñ yow moom tey nga dee yow mi liggéey ci biir boo boo dof doxla ba am plaignant ak patient non ma sa dàq mooy sa dàq bi amul sax ay demande d'explication ni ay nañ négocier déedéet militaire la huit heures huit heures la neuf heures la nga ñëw en retard ñu mise en demeure la nga dem toogee ji ne man yóbbu naa fa malade ba malade bi di bëgg dama ne ko woon du ngeen ko créer beneen feebar sama cousine la. Hmm. dama ne ko ndax du ngeen ko créer beneen feebar pour ñu mën a yàgg. accueil bi c'est tellement accueillant. Hmm. espacieux ba pare amul kenn kuñ naan toogal fii toogal fii yàgg sa malade yéen a ngi bokk benn cabine. boo ah. jëlee cabine. Hmm. yéen a benn cabine bi ngeen di fanaan. parce que xam nañ. mën na la soxla à tout moment te mais euh, sage-femme mën na fa bañ a nekk keneen ak keneen. mën na fa bañ a nekk Marie jarul sori demal SOS gii moo fa am da da da ngay da ngay kontaan yow si si accueil bi déjà. Mhm. parce que dinañ ñëw dinañ dara am na benn paa boo xam ni mooy séddale lekk yi en même temps dafa jàng alxuraan ku ñëw nekk jigéen ñu war la césarienne boo xëyee sa jour césarienne moo ñëw saali day dugg tëfli sa bopp tari si alxuraan tëfli sa bopp ne la yàlla ne la yàlla mooy omisien dugg dugal ak jaam génn ak jaam yàlla defal la sutura nga génn ñuy césarienne la ñëw toog deux jours nga ñibbi sa kër gis nga dañ ko war di cultiver ci hôpital yëpp yëpp yëpp. waaye hmm. gis nga hôpital régional yi hmm. hmm. man Elimane man bu xanaa ma ñàkk am xaalis waaye bi ma amee xaalis non kaw la sax duñ ma seen ba may gis. duñ ma sax seen fii. bu ko xalaat duñ ma sax seen. ma da nee naa leen dee dugg ci suuf si moo ma gën a dem. ñu ne ma fa nga jëm mën a leen dew. mu ngi noonu euh, Cheikh Tidiane Dansokho euh, vraiment lii nii mu wax ni euh, soxna Ndeye Marie Dabo kenn mënu cee dindi dara parce que loo xamante ne yow yow yow si yëmu da nga koy dund parce que ñun ñëpp dañuy feebar di dem hôpital wala sax ñu am maladie yóbbu hôpital mais dañuy gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy war ak acquérir maladie yi nu ngi leen di acquérir du demee noonu parfois sax duñ la accueillir yow yaay ñëw jël sa malaat yëkkati ko gaja gaja gaja yow indi. ñu lay romb gauche ak droite mel ni que yow indiwoo malaat malade te euh, accueil bu neex rek mën naa faj malade loolu ñu koy nommee ko si hôpital yow naka nga jàngatee loolu noonu euh, Cheikh Tidiane Danso. waa xam nga accueil euh, maanaam yenn hôpitaux yi si accueil rek dèjà défaite la. Mhm. mën ngaa décédé ci accueil ba. Mhm. imagine ku def accident ñëw accueil nga tëral ko ci suuf. waaw kay. Mhm. imagineel koo xam ne da xeex ñu jam ko ñu def accueil nga dem ak ñu ne teg leen ko noonu muy sañe ba ba faatu yàlla Eliman mu doon ay problème yoo xamante ne les gens liggéeyuñ par amour mais dañuy liggéey pour remplir leur poche xam nga loolu mooy problème mu Sénégal mhm. enseignants yi am nañu ciy jàngale bëgguñ métier bi journalisme yi am nañu ciy liggéey bëgguñ métier bi mhm. dafa rawati nag ci santé ba dafa am ku commenté sànq euh, ba ma ko estati mu ne ñu bëri ñi ngi liggéey ci ci santé état bu Sénégal lu ne la def ci santé def na ci xaalis ba sonn mais ña fa nekk seen comportement moo méngoowul sax liggéey ci ci ci hôpital mhm. te effectivement la dame a parfaitement raison parce que mënumaa comprendre yow ñu jël la xoolal tubaab nu mu respecté doomu aadama mhm. xoolal tubaab nu mu mënee jël doomu aadama yow Sénégal moom nee naa la Sénégal bés boo feebaree ba dem hôpital boo amul xolu muñ dëgg maanaam kàddu gi ñu lay njëkk a wax rek dañ lay déraumatiser ba yow gaañu ngay bëgg te du lenn sage-femme yi dañoo indiscipliné nit day am doom sa ñu koy dóor defal nii di kii imaginer nga dóor nga nga dóor nit jaaree fa dee looy wax lan ngay wax nit da nga yaru nit da nga yaru sage-femme normalement war nga indi sa douleur muy waxtaan ak yow di waxtaan ak yow ba ñëw Sénégal nag dañuy foree fee nit rek ñëw santé du caaxaan santé ku koy jàng demal cité nga jàng ko école de formation santé yi nañu leen tëj amuñ ci benn jëriñ formé wuñ benn sage-femme d'état dara lañ formé wul dañuy rey nit ñi kay da ngay yow da ngay nekk hôpital di fobeere jékki-jékki sa ñu ne la léegi da ngay da ngay réewle mm-hmm. nan mën nga ko ah ku leen de opéré leen ma opéré leen ko douleur ba muy yëg xoolal 9 h ba 5h. Eliman. Mm-hmm. réew mi nañ ko réew mi nañ ko xool. réew mi du Macky Sall du Ousmane Sonko du kenn réew mi comportement nit ñi la. Mm-hmm. nañ ko wax te dee. réew mi comportement yi lañu war a xool foo ti dugg service yi sax da nga fay dem di wax ak nit mu toog du la faale. Mhm. da ngay dem Senelec war a fay ndaw si fay ñetti nit dix personnes jóg dem yoonam nga wax ko mu ne damay ndékki. comprendre nga dem nga dem SDE di fay ndox mu fay ñetti nit kaj kaj kaj jóg dem te nit ñi léegi dañuy déplacé wu. am na ko war a dem Orange Money jabaram pour mu togg am na ko war a dem Wave jabaram pour mu togg am na ko war a dem seeti nit am na nit ñi dañuy déplacé wu xam nga réew bu ñu demee ba nga war a fay ndox toog fa 9 heures foog fa 7 ba 13 heures kooku bu fekkee day liggéey perte na journée boobu. Mhm. nañ ko waxtaanee te dee. réew dañuy xoolaat bu baax da nga dem hôpital di seeti malaat ñu lay këll yi di la kookali jël malaat bi moom kese bàyyi ko wala malaat bi ñëw parfois nit stress mën na koo jàpp mu feebar nga koy bindal ay ordonnance su cinquante mille cent mille. ba di di comme li Ndeye mari wax di waxtaan ak pharmacien eh, bi nan ko après dama ci am redevance nit day lek lu bu da ngay ut alal bu ko out ci nit ñi bu da ngay ut alal bu ko out ci nit ñi da ngay gis eh, nit jabaram day am dom dara du ko dal ñu bind ay ordonnance 300000 ko xamanteni koo du doole la bu jëndee 300000 du ngénte domam de mm-hmm. mu leeral la hôpital yi ni amna ben quota bo xam municipalité bi mo koy fay mais quota mm-hmm. bo fan lay dugg nañ ko lijeenti tey loolu pour néew di dooree la pour boo boo boo amul moyen ñu faj la hmm. anamu tey fan la mujj état bu Sénégal di ci def municipalité di ci def conseil départemental di ci def ñëpp di ci def askan wi loolu lañu war a régler mais duñ ko régler dañuy ñëw naan diw nañ falu man ko falu sama yoon nekku ci mais askan wi nañ leen yërëm fépp la service yëpp service yëpp foo ci dem mu nga dem tribunal nga dem police nga dem hôpital nga dem SDE nga dem Sénélec foo munti dem ay jafe-jafe nga fay jëlee naqar goitre dee nit ñi sonn nañ parce que nit ña ñu fa teg ñoo bulul moy tek da ngay tek nit ku responsable. non daa soxo ak terme bi tegabuluñ moom. non mais Non, mais déjà déjà impoli. ci bool da ngay dem ba joxe sa facture sax ndaw si dem te jàngaluñ la loolu bu fekkoon da ngaa am da ngaa am formation bu baax. imagine mu ngi mel nga war def journal ba 13h ne da ngay dem rek yi di la xaar. loolu la hmm. rek waaw donc moo tax man à chaque fois Ndeye Marie man duma ci sonn. Hmm. nañ fay teg rek parfois hmm. moo tax service yi à chaque fois boo ci demee naqar nga cee jëlee. naqar kese ndax dangay dem war a fay da ngay dem SDE war a fay nekk ni numéro tel ñu def pause. 9h ba 11h commencé waat defaat pause 13h te nit ñi amuñ jot Ndeye Marie dafa war a dem doxe ay soxlaam. day roqee sal dafa war dem dox ay soxla pour ñom ña fay ñew di fay fakir ay chômeur la xam nga ñun dañuy liggey hmm. ñom loolu lañu war a xam. donc loolu méttiwuma daan soxo xam nga lan moo ma métti ki nga xam ne dafa dañ ko o ne ko sa rak wala sa yaay wala sa jabar wala sa jëkkër mu ngi hôpital dafa def choc urgence. Hmm. kooku ñew ñi ci porte bi ne la bul dugg. Hmm. loolu la lay wax ni loolu mo mu metti man de ne mu ngi doonu euh, leneen li sox euh, soxna Ndeye Marie Dabo wax sànq muy loo xamante ni tamit loolu <laughs> lu am la ah, parce que ñu ngi koy dund parce que comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp chaque jour dañuy dem hôpital dañ fay am ay malade euh, man mën naa ci indi benn témoignage boo xam ne man la. Hmm. yàggul dara bi ma bi ma dem demee maternité war a accoucher ñu bindal ma benn ordonnance boo xam ne quarante mille francs la ay ballon. lu nekk prévision yu bëri mbuus daal ñaari mbuus daal ba mu fees dell ma yenu indi gaje gaje gaje ma ñëw fekk defal nañ ko ba pare ñu ne ma lii nii fee fii lañ koy teg keneen bu ñëwee moom lañ koy defal yow eh, am daa am keneen ku jëndoon lii nii moom lañ moom lañ moom lañ ko defaral après bu ñu demee ba ñibbisi ma laaj ma madame ma ne ko yow yow lan ak lan lañ la defal foofu mu ne ma foofu benn benn benn prévision lañ ma defal foofu noonu te man li ma jënd si ay prévision man na cinq li ma jënd si yeneen ordonnance ma man bët sete gisuma ci dara amul dara lu ko accompagner ci salle bi mu nekk te man li ma jënd xam naa ne mooy loolu moo tax li nga wax léegi ne que ñoom dañuy liggéey ak pharmaciens yi man loolu mën naa koo déggal parce que man dama ko dund. Hmm. man loolu daf ma jaaxal te et puis euh, leneen loo xam ne dañ koy nemmeeku foofu noonu mooy ñàkk kersa gi. insolence ñoom dafa mel ni ñoom jaaruñu si benn formation. wala ñax ñoom sax dañuy xaw ma ndax dañuy lijjante diplôme pour ñëw foofu wala nan la demee. parce que normalement su fekkee yow da jàng médecine. xam nga ne wax ju neex ñun jànguñu médecine wax xam na ne day faj doomu aadama. comme comédien yaa ngi nii chaque jour ñuy faj doomu aadama te du ñooy médecin. parce que nekk nekk ci ci ci ci tele bi. wala ñëw face to face ngay reeloo nit ki rek mhm. ree yooyu muy ree da ñëw ba récupérer waat ko su fekkoon dafa amoon stress sax ba feebar ci loolu da koy delloo si ba mu nekkaat nit mais ñoom da ngay ñëw xoolal daf dañuy mel ni ñoom ñoo la gën di la pamti pamte di la yuuxu di la ar gëdd vraiment ba yow mi nga xamante ne yow yaay malade bi sax da ngay mujj amaat beneen feebar boo xam ne bokkul ak bi nga indi ci hôpital bi ñi nga xamante ne ñoom ñu accompagnant yi sax waxaale wuñ ko ñoom moom yow sax da ngay da ngay doo am fit su fekkee koo xam ne Elimane Kane la xamul dara ci ci affaire administration xamoo sa droit xamoo sa say say devoir yow da ngay dem ba ragal médecin boobu boo amee sax loo ko war a laaj doo am fit pour laaj ko ko parce que da ngay ragal mu ñàkki la kersa ñoom ñoom lan la. gis nga li ma la mënta wax mooy que ni gis nga école de formation yu bari yi. Mm. li may wax rek ci kanam tuuti lépp dañ koy privatiser public dootu am fii. Mm lepp da ngay fay kër ngir am ko lepp rek da ngay fay ngir am ko waye nak dafa am lo xamni faaw ñu bayiko xel gis nga intelligence mhm. xam-xam deug kenn du ko maye mhm. dang koy sakku te lépp loo ta te jiitaloo ci suñu borom bi mhm. boko ko amee du la jari mooy waral ngay gis dérapage ci hôpital yi mag dérapage ngay gis lool parce que duñu jang ci nam waree xam nga nu jàng jàng pour am xaalis jënd diplôme pour mën a exercer ci benn métier eh, mu di sax jënd diplôme pour mën a àgg ci niveau supérieur charme directeur bi pour mu teg la ca poste de ci secrétaire wala secrétaire adjoint xam nga tamit Sénégal tamit li fi nekk ni war koo mën a wax dafa bari waaye doo gis kenn ku ci dut baram ci ay débat yu inutile yu ñàkk fayda la ñuy nekk mm. attardé wu ci ay diwa sàkk diw ak hmm. ay diwa jox lii diw ñaari nit ñu dugg seen ruq sàkk wante ba seen xol sedd lu ci yoon askan wi duñ duñ jël ñi nga xam ne ñu ngi dee ci hôpital yi de duñ jël hmm. handicapé yi nga xam ne seeni droit dañ ko bafoué duñ jël xale yi nga xam ne tey ñu ngi ci mbedd mi soxla ku leen dimbale ñoom daal ci débat yi inutile man daal Sénégal xuma man xeetu réew lañ nekk waaye bii moom nekkatul woon Sénégal gu njëkk ah. sama Sénégal ñoom yaay ak Sénégal ñoom mari daa wuute <laughs> ma nag ban monde lañ nekk jamono yi mari li nga wax euh, dama koy dëggal xam nga lu tax euh, nee nga sànq euh, école de formation yi bëri nañ te dans xool da ko wax nee na école de formation yi jàngaluñ jàngaluñ nit ñi médecine jàngaluñu nit ñi sage-femme d'État dama cee am firnde moo tax ba ñeme koo wax dafa am benn femme maak moom ñoo bokk sixième secondaire hmm. maa ko fekk sixième man man bi ma amee entrant ñu orienté ma CS1 Valdiodio ma ñëw fekk ko sixième moom dafa redoublé ñu dem ma bàyyiwaat ko sixième mu bàyyi jàng euh, mari kooku ban diplôme la am. Oh, Marie ñu dem dem ba 2000 ba 2014 2014. ñoo yóbbu ma ci benn hôpital mu fekk ma fa ñëw tiim ma ne ma kii du diw ma ne ko yow kii du diw mu ma loo fiy def. ma ne ko yow kay lay laaj loo fi def ndax man malade laa waaye yow blouse nga sol <laughs> yow loo fiy def mu daal di génn saal bi dem ma daal di koy wax sama yaay mënuma tee ngaa bàyyi kii. man kii hmm. duma ko bàyyi kii fu munti dem mu naa man ko dinaa ko dénoncé ndax kii jàngut xaala wala kasiiran moom benn diplôme amu ko moom amul BFEM leeru ma sax ne am na certificat ndax entrant sixième jamono boobu soo amee entrant moyen da ngay dem passé sixième ah. mhm. même so amu certificat tammi da ngay pas man ko ki leeruma sax ne am bayi certificat te mako fik 6e bàyyi ko e mu bàyyi jang ñu may ko jëkkër mu sey ñu ñëwaat ba fi te man ma ngi def instant bi ni seconde mom ban diplôme la fi am bu mun a nekk ci biir maternité bi di liggéey di sol blouse am man loolu moma te kuma dem dinaa ko dem non du diplôme de xam nga lan la ñom par exemple parfois dañuy def ay formation mooy ñii dañuy dañuy fooye santé bi. après bi ma demee ba def sama dama lay dama lay dama may benn kii rek. Ah. pour nga yeggali. maanaam euh, dama ci dama ci am bu ma ci xamoon parce que man am naa ñoo xam ne gis naa leen ñoo xam ne dañu leen defal formation. Hmm. par exemple dañuy ñëw si benn benn benn benn koñ wala benn village ñu xool euh, jigéen ña fa nekkoon di réewle par par exemple xam nga am na village bu njëkk daanuñ dem sax hôpital pour pour pour mato ji. Hmm. day am kenn koo xam ne xam na loolu. koo xam ne de jaarul benn formation mais man na mat euh, mën na jàppale ndaw si ba mu mën laa rewale léegi ñooñu lañ jël yóbbu leen defal leen benn formation bu trois mois léegi jël leen yóbbu leen si case de santé wala poste de santé yi ñuy liggéey noonu lay demee te fekk ñoom xam-xam bi ñu war a am ci loolu noonu amuñu ko mooy indi problème yi xam naa ci foofu nga bëgg a ñëw. amul xam-xam xam nga lu tax. waaw ndaxte hôpital boobu dañoo respecté doomu aadama. Mhm. parce que malade bu ñëw da ngay am sa dossier kenn ku si nekk ak sa ay dossier parce que bu ñu xëyee. Hmm. kenn ku si nekk bu ñëwee ci sa fi nga sa place ñu wax sa tur xam sa température yaram lan la sa tension sa lépp ba xam lekk nga ndax sangu nga di la di la di la di la lijjanti daal. Hmm. léegi man sama dossier moom lañ ko joxoon. sa dossier waaw au lieu que mu bind Roqaya Sall mu bind ci Roqaya Sall dama am Sall bi da yokk Hmm. xam nga dèjà kooku kenn waru koo indi sax ci porte hôpital bi ba muy dugg biir maternité saal bi maternité bi di liir sama noo bi ne roqees na yow saal sant saal saal sant la <laughs> man ko sant ma saal de saal laa sant mun ma déedéet yow fii saal la ko diw la fekk mu ngi taxaw mën ko diw moo ko bind mu daal di may xool na ma danga kaa xam man ko xam na kii xamul tus ngeen wëcc ko fii yéen fu ma dem dinaa leen dénoncé kii xamul dara kii maa ko fekk sixième bàyyiwaat ko sixième kii dara xamu ko lu ko indi nag ci seen hôpital bi man su ma génnee dinaa ko lijjanti te yéen fu ma dem dinaa leen dénoncé eh. yéen waa hôpital bii yéen ñëpp leen respecté bañ naa ko ku feebar fii lay daw ñëw ndax yéen respect bi ngeen am si doomu aadama kii di fi dugg li ko fi duggal dinaa ko lijjanti sama yaay ne ma yow doo bàyyi diw ko du ma que kii fekk ñu ko fi bàyyi muy rey nit ñi hmm. kii dèjà sant rek mënu ko bind kooku buñ ko joxee pervision day rey nit hmm. moo lay war ne maanaam Sénégal liñ fi war a lijjanti moom lañ lijjanti parce que dañuy def l'homme qu'il faut la place qu'il faut hmm. moo amut après bi ma demee ba laajte lañ ma wax ne ma jëkkëram la moo ko lijjanti mu def ko foofu loolu pour lan <laughs> te ñaata nit ñoo fi jàng am seen diplôme yor xam-xam bi te ñooñu kenn investi kii inséré wu leen ci biir hôpital yi ñu liggéey ñu ngi taxawaalu ñi ñuy yóbbu ci hôpital yi ndaw sii nii li ko dal dama ciy amaat beneen anecdote mhm. dama dem hôpital bu ndaw benn femme fekk ma fa moom it muy accoucher femme bi xale la sax daanaka comme nday mari di muy wax kooku ci village la jóge kooku bu amee 19 ans ci lay toll hmm. ay âge am bariwut ndekete doom bi dee na si biir bi bu yàgg ñëw na fa depuis 13 heures la fa ñëw ci hôpital bi ñu sage-femme bi di ko hmm. négliger day onk di jooy ñu naan ko sa ngaa soof ak sa wax yu bëri yi yow da ngaa bëri wax boo fi waxaatee sax ñu indi oto bi léegi maanaam ñu indi ambulance bi yóbbu la régional di ko maltraité ci biir hôpital bi li may wax ni dama see am fi parce que dama see teg sama bët fekkee ko ñu renvoyé xale bu jigéen bi mu dem ñibbi xale bu jigéen bi mu ngi doon ñibbi ba gànjaay doon hmm. ñëw fii ba Kaolack di fi accouché mu dem ba ci guddi gi mu ñëwaat bi ñëwaatee fekkaat ñu fa xale bu jigéen bi gën a sonn gis nga ay xam ban heure la la la accouché. 23 hmm. heure fekk xale bi dee na si biir bi bu yàgg. Oh ñooñu bu ñu amoon xam-xam ndax duñ xam ne xale bi dee na. Hmm. amuñ xam-xam. amuñ benn xam-xam moo tax xamuñ ne doom bi dee na parce que doom bu dim dee si biir bi moo tax mu sonn. Mm-hmm. su doom bi deewutoon konoon dina xay na dina mun a matu mais doom bi foofu dee na amatul doole génnee ko ñoom rek ñoo ko mun a dimbale pour doom bi génn. ñu di ko négliger ba heure boobu noonu. gis nga bi mu paree biñ na ko bi mu xëyee ci suba si biñ na ko yow après dans trois jours da ngay ñëwaat rendez mu ne leen ñëwuma loolu leen tontu carrément ñëwuma. du ñëw ñu ko sa wérgu yaram mu ne leen yéen lijjanti leen sama wérgu yaram ma tal dinaa leen porter plainte. Hmm. la leen wax carrément te chasse femme bu réew nag mu ngi hôpital bu ndaw bii dama koy wax ñëpp di ko dégg ku réew la dafay manquer respect euh, euh, patient yi da leen di manquer de respect ku fa accouché sa dom bu yuxu yuxu bu beuri sax muna la sa dom bi dafa beuri wax liir kay dina joy nday mari di maltraiter patient yi non la fa nekké kooku dama koy dénoncé bu baax mu hôpital bu ndaw bi yëpp nit ñi bay bëgg dé man man mënu ma comprendre sa femme la ma comprendre matron la parce que ñom seen tenue bokkuñ parce que ñi dañuy sol blouse yu weex sol blouse yu rouge yi mm-hmm. blouse rose mom nak ci blouse rouge yi lay sol xawma nak matron la ko xaw ma lu do mm. mais ko yabatel la matron en général blouse bleu lañu sol moom bu rouge lay sol. ça dépend ci district yi. waaw foofu daal rose moo fa am blanc ak rouge moo fa am. Hmm. mais kooku yàpp nit ñi la te xam naa ne comme genre bii nii rek moo nekk ci hôpital Louga boobu ñu def xale bu jigéen bii nii ba mu ñàkk ci bakkam te loolu nag moom la libération wax inacceptable dootuñu accepté kuy accoucher di dee. Hmm. loolu dafay war a jug Sénégal dafay war a jeex accoucher dee loolu yàlla rek lañ koy bàyyee mais si ay conditions yi moom dootuñ ko nangu Sénégal dafay war a jeex. en tout cas daal loo ci mën di dégg Eliman. Hmm. gis nga nit ki boo bëggee ñu wekk la ëllëg da ngay fonk doomi aadama parce que man mënumaa fonk suma bopp de telle sorte que dara duma taq dara duma laal bugguma kenn wax ci man lu ñaaw ba pare ma jël suma mbokku morom suma mbokkum julit mel ni man. surtout jigéen ah su rawatina jigéen nga ak man gis nga nee naa man ëmbuma wasinu ma mel waaye su ma gisee ku ko def man j'ai toutes les peines du monde pour xool la jàkkaarloo yoon nii xool la sax sama yaram bi day daw parce que dama naan nit di di màgg ci biir nit mm. nga am ñaari poids ñaari diisaay nga yor ko imagine tey ki yor ay triplé ci biiram ñii ay quadruplé seen biir yi ñeenti nit ñëw nga war leen a le wala nga dem visite duñ la xool bind la xose xose garab paracetamol setamil ne la demal ngay naan di funki nga dem ñu war laa seet jël benn examen def ko naan nu mu di sax. Mhm. xoromoo fekk xorom ba yàq man am naa sama meilleur ami looloo ko rek. doguma la soxna Marie Dabo dafa am benn xibaar bu ñu dab. ci biir mhm. émission bi mooy que tey euh, ñi nga xamante ni ñoo faree fu ci biir mairie bu Kaolack dañoo am benn grève kenn liggéeyul. li ni mel nag suñu ndaw euh, Cheikh Tidiane dans dans ko daw na dem foofu dañ koy jëli euh, Cheikh Tidiane salaamaaleykum. c'est pas c'est tout, parce que tout, simplement, euh, aujourd'hui c'est le 11, on n'a pas reçu notre salaire. Et on commence à être marre et fatigué. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce matin, les travailleurs ont décidé de, ne pas travailler. Tout simplement parce que euh, depuis deux mois, trois mois, toujours c'est comme ça. Chaque fin de mois, on perçoit nos salaires à, partir du 10, euh, du 15, 16, et ça, c'est pas normal. Au-delà de tout employeur n'a plus le droit de, de, de, les salaires. Raison pour laquelle aujourd'hui, euh, les travailleurs sont mobilisés donc pour arrêter le travail, pour réclamer euh, euh, euh le, droit. Mais il n'y a pas seulement un problème de salaire, hein? il y a pas seulement le problème de salaire à la mairie de Kaolak. Rien ne marche à la mairie de rien de marche. Ce n'est pas le problème de salaire, tout simplement. Il y a, il des problèmes de management des, travailleurs. C'est ça le problème. Donc, il y a le problème des femmes de charge, il y a le problème des ouvriers qu'on a amenés à l'UCG. tout ça, c'est pas normal. Ils sont embauchés par la mairie, donc contrat de travail avec la mairie. L'UCG n'est pas leur patron. Donc, il y a beaucoup de problèmes là. Voilà. waaw ah, man wax naa wolof bi. waaw ah, wax naa ko bi. yéen yéen yéen jabalaat bu ngeen di xëy def seen matinal boobu may sànni xeer sànq yu baax. oui. El Ibrahima. waaw oh, Cheikh Tidiane. comme ni nga ko déggee rek mairie baa ngi neex dañu tëj buntu yi. waaw mhm. ah, ndax nee euh, daal ñoom nekkul problème mu salaire rek li ñuy jooy. ndax mhm. euh, lépp daal ñu ngi koy jooy ndax euh, ki nga xamante ne mooy maire bu bees si Serigne bu joxu leen seen gëdd. ah dafa jël yenn emploi yi nga xamante ne mbir bi da leen dama bëggoon ki doon wax léegi eh, si kàllaama nasaraan eh, jéem koo jege waaye am eh, kàllaama lan lan moo doonoon seen jafe-jafe fii tey. waaw suñu jafe-jafe moo nekk ñun dañuy laaj suñu salaire dañu constaté depuis trois mois ngi nii suñu salaire dafay tardé ay la quinze te loolu mosuñu dal fii ci mairie bi mairie bi ñun la trente le vingt huit le premier lañ doon fayeeku léegi nag tey tey liggéeykat yi ak koor bi du métier ngay li woor ba ngoon amoo loo yóbbu sa kër amoo looy joxe ndogu dafa métti moo dañuy laaj suñu salaire su salaire la ñu lekk daal. waaw loolu aussi am na mais ñun instant bi lu ñu intéressé moo nekk nañu fay suñu salaire parce que nit ki tamit boo nekk di ko seetu di xëy chaque jour di ko lijjanti aussi moom li seen salaire ba léegi fayuñu leen. Ah, bi. ñu fay ñu parce que aussi nit ki moo di di ko lijjanti di pare boo contrôlé ba pare aussi jox ko li moom parce que yow teg ngay pointage yoo xam dañuy xëy chaque jour point nit ñi ñu ngi ñëw di liggéey heure di wàcc heure loolu kon amatul lay ñun lay bi moo nekk nañu fay suñu salaire. waaw. comme ni nga ko déggee. Mhm. Ah, xam nga dara umpu la ci mairie bi ñoom daal nee nañ ah, depuis bi e ñëwee ba léegi. Mhm. Ah, sëriñ bu ñu ngi leen di jox seen salaire bu la 15 jotee te ñoom nag mënuñ ci liggéey di leen di pointé te di jot seen salaire ñoom daal nee nañ daal. na seen salaire technique bi yëpp la juntu mairie bi ñeneen daal liggéey bi fi am pour seen salaire wàcc waaw ah, loolu daal moo fi jotoon a xew ñu ngi takk nag ay brassard kon kon kon mairie bi tey kenn liggéeyul ah mairie bi tey kenn liggéeyul xaaral ma jox la mam su mam su mi ngi nii en direct suñu kër itam le message on comprend pas ce qui se passe la maison de presse qui t'accompagne partout pour que ton travail soit visible cette maison de presse pour prendre une table de message si peut-être qu'il a envie de euh, euh, euh, réallumer sa radio qui ne fonctionne même pas si c'est pour ça qu'il est en train de sacrifier le personnel de la municipalité moi je me demande est-ce que c'est un maire M-A-I-R ou bien c'est une maire M-A-S-T-U-R-E le xew moi tey euh depuis trois mois depuis trois mois pour salaire bi joté doo ko jot doo ko musul am man mairie as ans musul man salaire musul Tarre. mais depuis l'arrivée du nouveau euh, de cette nouvelle équipe moi Serigne bou ak dañ ñu imposé émargé sax heure bay ñoo liggéey liggéey ñom salaire pas avoir ton salaire pour salaire ñuy waxal rajo boo xam ne moo ko war a accompagner pour liggéey liggéey communication mi ngi mel ne Macky Sall tey RTS panne un mois kan mooy wane liggéeyu Macky yow nga ñëw ci maison de euh, yow nga ñëw ci mairie bi fekk fa maison de communication buy fonctionner muy RMK depuis trois mois RMK takkul rajo boo xam ne da koy taal léegi fayal ko muy mel ne téléphone loolu lu tax problème mu panne table de mixage ñu bëgg ñu imposer benn table bu nekk ci kaw boo xam ne ñoom ñoo koy utiliser pour seen ay réunion six bis table boobu nga xam ne mënul sax yëngal ngelaw table boobu ñu bëgg ñu ko jox boo ko utiliser deux deux deux minutes deux heures temps ñu ne la dañoo am réunion ñoo jël table yi ñu ne leen mel loolu du dem. table bi ngeen lay jël. table bi ñu bëgg xam nga ko ci maison de communication nga nekk Moussa Babacar xam na ko xam nga yi xew ci jamono ñaata lay jar table bi ay un million ay affaire yooyu lay jar. ay océan oh, la mooy table yi gars yi am ah, seen studio yi. un million moo tax trois mois ngeen wax leen. un million trois mois waxuñu. ci mairie. te moom keroog bi muy def conférence de presse rajo euh, Kër de Ville la jël jël télé moo ko moom c'est son problème ça n'engage que lui mu bàyyi rajo askan bi nga xam ne la kaw la ñëpp moom di ko déglu ñoom ñëpp mu jël rajo bi moom def fa conférence de presse. bi fii le directeur PDG de l'Orange di ñëw chambre de commerce la ko yóbbu bi muy def huit mars mu ne dafa ñëw fii fekk mairie bi maa koy déglu en direct mu ne def a ñëw fekk mairie bi mel ne lu nekk ci dëj xamul kan lay waxal ñi mel ne ñëw xaw a lan mais yow fii jéeg ji nekk amul at bu ñu deful huit mars amul moom moo fi ñëw huit mars amu fi mu jël ko taxal ko ak ay soi-disant petit jéegam yóbbuwaat ko kër ville lu wara am ci maire bi mu yobugo ko kër ville lu wara am fere mu yobugo sam chambre am mais nak ñun duñu chambre de commerce duñu kër ville on n'est pas des fonctionnaires de Serigne bou on est des fonctionnaires de l'État Serigne bou fay ñu ci xaalisam ñun ñoy fay suñu bop li ñuy lacc ñoko mom c'est pas son argent. c'est Mamadou Kanda agent municipal de Kaolack. suite grève bi mooy mu régler problème yi ñu soxla. salaire yu dugg ñu delloon ci liggéey bi parce que on n'a pas ce problème bu ko réglé woon nag demuñu négocié wuñ sax ak petit soi-disant chef de service. yaa waaw ñoo ngi koy dégg bu baax. leer na nañ moom de moo fa jaar kon donc euh, gis nga. Ah, mairie bi mi ngi nii daal ah, comme ni ma ko a waxee amul benn agent bu nopp ñoom ñëpp ci xol la ñuy mhm. ah, ñoom ñëpp daanaka daal liñ mën a li ñu mën a xamal mooy premier adjoint au maire daal dinay wàcc ngir ngir wax ak ñoom mais gars yi ba léegi tamit baale wuñ ko waaw premier adjoint au maire. anamu ngi mi ngi génn na wàcc na mais nee duñ wax ak moom nee nañ sëriñ la ñuy waxal. ndax seen salaire yi bëgg muy dem bala ji nañ daal nañ nañ koy teel a fay ah, doonte sëriñ bu nekk fi waaye premier adjoint tam bi nga xam ne mooy ah, mami Mbow madame Tall wàcc na pour wax ak waaye faale wuñ ko dañ koo yuuxoo mooy yuuxu yooyu ngay dégg Eli Ibrahima. est ah, est mami moom madame Tall moom mën nga ko jege. <laughs> bu bu bu fekkee am am na ku ma jege nii benn. <laughs> <laughs> moom si woon soor si woon soor la dëkk moom bu ñu ko fayee du koy ji waaw maa maa ngi nuyu d' tey moom li fi nekk doy na waar parce que mairie bi nga xamante ne presque ba weer bi dee war nañ jàpp nañ ne deux mois wala voire trois mois suñu salaire dañ koy yéex a yoo xamante ne bon boo ko jotee sax dèjà da ngay dem ci buntu banque ba ko jëlee mu jeex donc kon buñ ko téyee ba heure bi ko nekk ni na weeru koor nu mu mel dépense yi nga xamante ne dafay exagéré nekk koy jaar ngir am xaalis loo jox sa njaboot liggéey li ngay liggéeyee moom ngay suturloo kon donc li nga xamante moom ngay liggéeyee bu nekkee dañ ko téye weer bu dee ñu bañ la koo jox yaa am problème bu fekkee ne sëriñ bu dafa ñëw ci mairie Kaolack ngir defar day xool nu mu koy defaree bu baax a baax ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk ci ginnaaw sëriñ boobu il faut aussi ñu koy jox ay conseil bu fekkee nangu na ñu koy conseil parce que ni muy doxalee mairie Kaolack bokkul ak entreprise mairie du entreprise boo demee ba nga dégg mu ne dafay def ay caméra de surveillance ci mairie li nga xamante ne institution publique nga xam ne kon sëriñ bu xamul lu muy doxalee mu doon loo xamante ne métti na conditions yi nekk si mairie kenn xamul nu mu toll employé yoo xamante ne instant yi ñun ñëpp dañ leen xoqatal employé liggéey parce que fi fekk mooy naqar ak xol bu xol bu tàng jot na aussi ki nga xamante ne mooy Serigne Boubou mu dégg ñi nga xamante ne ñoom ay employé am yàgg nañ ñuy dégg fii mairie Kaolack ñun bañ fi nekkee ba léegi mosuñu fay gis cité Mariama Sarr doon fi nekkee weer bala muy dee le vingt nga jot sa xaalis plus tard le vingt nga jot sa xaalis kon donc moom bu ñëwee mu indi ay changement ñëpp comprendre nañ tout début est difficile mais am na noo xamante boo ko defee rek nga indi ay problème bul ma bëgg a ñëpp waloor ñëpp parce que moment bi nga xamante ne ne yow am na ñoo xamante ne toog seen kër du ñu xëy si moment boobu am na ñoo xamante chaque six heures du matin ñu ngi xëy si sëñ bu bu ko jigéen ñu xam ne mbër la. <laughs> bu ko jigéen ñu xam ne mbër la ah, xol yi. <laughs> daa soxo laaj ko moom mu ngi nekk ci benn maison de presse foofee ci mu nekk ci samp ci biir mairie bi ñoom naka la ñuy dundee ndax jamono jii ñoom ñu ngi laaj li nga xam ne moo di salaire waaye ñoom est ce que ñoom ñu ngi liggéey ñoom ñu nekk ci maison de presse boobee samp ci biir mairie bi. xam nga xam nga lay roqee Sall ah, moom si daal na ci revenir. waaw moom si daal xam ne moo mhm. tàkkul euh, te ñoom table de mixage donc léegi tànk moom lañ dugaloon ba tey dama mën naa koo jox euh, mam bi yaa ngi en direct ci Kër FM nga bëgg nga delluwaat ci li nga xam ne mooy maison de presse bi nga xam ne de Serigne Diouf ñëwee ba léegi dafa fay yow lan mooy sa xalaat maison de presse bi de dama yaakaar ne ay maison de presse am la bëgg a mettre en faveur par rapport ak maison de presse bi nga xam ne moom la Kaolack moom te mu lew ci ñoom parce que mënoo ñëw ci suuf ak fa benn maison de presse va nga soxla presse soxla communication soxla lépp nga bëgg maison de presse boobu fay depuis presque trois mois ñu ngi on vient on démarche, signé toog fi ba 17 heures tu fais rien mais quand tu demandes à quelqu'un de venir à temps à l'heure de faire le boulot mais il faut lui donner son euh, euh, son outil de travail mm-hmm. mais on comprend pas man nag ignorance en action laa koy wooyee xamul sax fi muy taxaw bay ñëw. Ah, ngeen déggee ko noonu ignorance en action comme ni nga ko gars waxee rek ah, maanaam tout début difficile ah, mu doon loo xamante ne sax doon bu kaw la waaye di waa mairie bi sax laay wax agent municipaux yi mu doon loo xam ne ñoom rafetlu wuñ ko benn yoon ndax bu fekkee yow yaa gagné élection locale yi ñu génn nga gagné ko ñu ne dañu bëgg changement nga ñëw di doxalee nii. ci wàllub euh, administration bu nga xamante ne c'est public euh, bëgg koo bëgg koo nga moom dafay xaw a métti euh, ci buñ gisee nii ni ñuy waxee takk ay brassard rouge di naqarlu yu bëree bëree bëri fii ci municipalité bu Kaolack donc du guleen sax ndax ñëpp xam nañ ne bu municipalité yëngoo mardi daal yi délégation spéciale mën na fee ñëw ah donc kon nañu nañu waxtaanee rek mbir ah nday mari daal. Cheikh waaw kon xam dañ lay bàyyi nga toppal ñu xibaar bi. ba ci kanam tuuti incha allah. ok incha mu ngi noonu mairie ba na ñi nga euh, euh, agent municipal yi nañu di naqarlu liñ ci mën a jàpp benn moom mooy salaire dafa tardé tey la 11 ko ñu dara ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko fay dund ba ci rajo municipal bu Kaolack bi nga xamante ne bii mu ngi doon tàkk trois mois nga nii émettrul mu nekk ay mbir yu am soxla yu yu yu métti yoo xamante ne daanaka ñu ngi koy dund foofu noonu ci mairie bi soxna Ndeye Marie Dabo. dina me fait rire daf may réeloo quoi. Mm. Mm. parce que tamit euh, diina daf ni. Mm. nit ki ngay liggéey balaa ñaqam di fer fay ko xaalisam. dëgg de te moom doomu daara mm-hmm. balaa ñaqam di fer. fay ko xaalisam moom jaar na ci daara. Mhm. jaar na ci daara ba tey mu taxawal ay entreprise ay bërëb liggéeyukaay. Mhm. et c'est pas c'est pas du du municipalité bi kese de. Mhm. ba ci entreprise yi mu taxawal les gens crèmes leur salaire. day toog ay six mois du leen fay. Ah, man je parle en connaissance de cause. je parle en connaissance de cause. sept mois nga def ko ci entreprise. tu perçois même par un franc même pas remboursement transport tu le perçois pas. Mm. xam nga loolu tamit day gis nga frustration yi ngay gis yëpp yii bokk na ci. Mm-hmm. man man mën naa ci bañ a gaañu. parce que aw ma borom kër aw ma doom peut-être sama yaay mi ngi fi sama papa ngi fi. Mm-hmm. peut-être soxla nañ sama xaalis parce que seen doom ñaan nañ yàlla mu tekki. li yàpp ci dara di leen dimbale même bu dee un franc la ñuy lekk ci moom sax mbégte la ci ñoom mais ki nga xam ne daa yori doom yor jabar yor ndeyam mag baayam dëkk ci kër gu mag teg ci. Mhm. ki dëkk ci appart moom kese ak ay doomam ak jabaram du garaaw. Mhm. mën nañoo négocier mën na am beneen dóor daa xefee mais ki dëkk ci kër gu mag Elimaan war a xëy joxe dépense say doom war a ndékki sa jabar war a dem marché. war a def leneen leneen sa yaay ci kër gi ñu wala urgence ne la sa yaay feebar na te yow doo ngay nekk ci kër gi. nga war koo mën a yóbbu hôpital un franc boo jëndee paracétamol sax yoroo ko loolu tamit àq bu rëy la. ci mhm. weeru koor lañ nekk nag naka bàyyi xel. Mhm. ci weeru koor la ñu nekk. te lu ci waay ñaan tam sa xol bii muy lu baax muy lu baax ndey daal. Mhm. na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax Mariama Sarr moom xawma lu ko nit di sikkalee ci biir mairie Kaolack def na fi cinq ans xawma sept ans benn yoon laa fi dégg manifestation te si quatrième année la muy syndicat bi lu luñ doon réclamer si mairie bi la woon du question de salaire réclame wuñ question de salaire c'était des agents yoo xam ni euh, dañ leen a bëggoon a wàññi pendant Covid bi. Mhm. c'était en 2019 loolu lañ doon kaas kaasuñu salaire kaasuñu matériel bu yàqu ñun nekk nañ fa trois ans xaw ma quatre ans xam nga ko xam naa ko. Mhm. kaasuñu matériel. bañ demee toog ak moom lam ñu wax dégg nañ ko yow mhm. yaa ngi toog keneen ak keneen a ngi toog. tey bu fekkoon tey yàlla moom la tegaatoon ci boppu mairie bi les conditions allaient plus être meilleures que lii ñuy dund trois mois nga toog émettre trois mois te yow nga xam ne loolu rek nga jàng leneen looy def yow ñu la génnee ci rajo bi fan nga jëm. ICC. looy liggéey man du ma baleel kenn te am mm. samay diplôme journalisme communication du ma ko defal kenn bu ñu yeboo ñu ne ma damaa mi métier bi xeeb ma métier bi de. moom laa jàng. loolu laa xam di ci def pendant des années.

c'est la première fois nag ci histoire Kaolack maire bu fi defagul trois mois quatre mois. Hmm. ñu nga am ñaari yoon manifestation. Mhm. deux fois bi mooy ñaari yoon. bu njëkk bi doon nañ kaas si affaire yi pointage yi. ak salaire ak mhm. ñu reconduire la même chose toog ba le quinze le dix fa yokku te ñoom ñu daan jot seen salaire au plus tard vingt huit le vingt cinq la leen daal virer seen salaire plus tar plus tard vingt huit du ko génn. xanaa kay bu dee signature yomb na tamit. waaye jël ay dossier dem Dakar contrôler am loo modifié indiwaat fii ñu modifié waat nga doog a yóbbu perception perception doog a yóbbu trésor si mu dem guddement pour la. tam ñoom ñu ay agent ñu embauché leen publiquement ñor seen i contrat c' est des agents de la fonction publique nekkuñu pour mairie de. c' des agents de la fonction publique ils travaillent pour l'État. État. Mm-hmm. ils ne travaillent pas pour Serigne Boub ceux qui travaillent pour Serigne Boub c'est les gens de TV Saloum les gens de SID chambre de commerce cœur de ville CCBM CCBM électronique ñoom ñooy am sur Serigne boobu mais ñi ci mairie employé Macky Sall lañ Macky Sall Macky a le droit de les de les renvoyer te bu les renvoyer c'est des conditions claires et nettes yu mu leen di dàqee bu leen dàqee sans raison vous ñu ko yóbboo ci yoon da leen di indemniser xam nañ droit bu baax mhm. parfois nag ñi toog ci bopp dara te xamu ko. nit ngi yoru dara te xamuñu ko. chaque jour ñu wax ko fii. nit ngi toog ci administration ta xamul luy administration xamul droit administration xamul droit humains ñi mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey ci personnel bi ñuy liggéey ils ont des droits et des devoirs gis nga moytul ma ko xam ay devoir am doog a réclamer ay droit am. Mm-hmm. ñoom de il connaît leur devoir ñi ngi koy def mais bis bu ñu réclamer seen droit jox leen ko. mu ngi noonu soxna Roxaya Sall dafa mel ni moom Serigne Mboup euh, euh, moom daal euh, trois mois yi nga xamante ne xaw ma quatre mois la dafa gum bi xaw ma trois mois yi mu jot a dafa maanaam li mu war a liggéey daal liggéeyu ko maanaam jaamaarlu ak ñi nga xamante ñoom ñooy employé municipal bi lañ gën a nemmeeku parce que chaque jour ñu gis ñoom ñu génn vraiment di ñaxtu ci li nga xamante ne moom la ñuy dund ci biir mairie boobu. loolu moo am sax euh, Elimane mhm. xam nga fii keroog si suñu benn émission Ndeye Marie nee naa leen mbëtt du soppi suuf mhm. suuf mooy soppi mbëtt mag ñi ñoo ko wax waaw xam nga mooy lan boo ñëwee ci suufu ban ban bi ngay nurool mhm. nga dem ci suufu joor joor gi ngay nuróol sëriñ bu mbëtt la ci mairie bi mënta soppi mairie bi déedéet ndax mairie bi administration état la du privé kon moom mënta jël la nga xam ne moo am ci ay entreprise am du ko indi mirbi biir mairie bi mairie bi alalu askan bi la. Mhm. waa Kaolack ñoo ko moom. bu mom ko de waa Kaolack ñoo fi teg sëriñ bu kër gi ñun ñoo ko moom waaye dañ dafee teg pour ñu koy ñu koy nga ñu koy liñ fi soxla nga ñu defal lii muy mairie bi. kër la ñun ñëpp ko bokk waaye dañ koo jël jiital ko si biir kër gi ne ko lii ak lii lañ bëgg nga doxalee te nii lañ bëgg mu doxee nii nga koy doxalee lu tax moom mu ñëw fekk fi mairie bi li nga xam ne état la ñëpp ko bokk mu bëgg koo jël def ko yëfi boppam ba euh, suñu naataango bi sànq mu ngi koy wax si biir ay waxam boo bëggee xeex ñii. mooy Mamadou eliman kan déedéet mhm. mooy bu naamu dur bu naamu nee na boo bëggee xeex ñii da nga maasaale ñëpp da nga rayaale ñu bëri te seen yoon nekku si. Mhm. ndax boo ñëwee ak een bëgg a defanteeg ñii te ñee seen yoon nekku ca te ñoom ñëpp ñoo bokk li ñuy def. léegi yow nga bëgg a xeex ak ñi bëgg caa boole ña ca des ñi si des ñoom fan lañ jëm. danañ hmm, sonn. ñëppay sonn. Hmm, hmm. mais looy def danga koy defee ak xel gis nga nit lépp looy demee da nga koy defee xel ak dal. mais doo ñëw jiital sa xol jiital xët-xët mayewul dara xët-xët lum la xañut du la ko may sëriñ buub te ñëw fekk agence yi ci miir bi ñuy liggéey pendant des années ñu jiitu ko fi foofu junior xam ne miir bi di fonctionner mu ñëw bëgg a yëg ci seen digg bopp yi teg ci benn boolu ceeb di ci lekk. te momu len tegu len fi de jelu len état mo len fi tek serigne bu momu len de kon seeni ay salaire bu joté na len ko jox en tant que borom keur yow li nga yaakaar ci ngay liggéey. Mhm. bu weer nañ la jox li nga mom nga dem jox sa njabot ah, sa njabot yow lañ yaakaar. mais yow depuis 3 mois voire 4 mois chaque mois seen salaire yi day retard pour lan lolu te yow mi yow man dama japp ne iliman soo jito fenn. def fa lu rafet su ma ñëwee damaa war a topp say tànk def fa lu ëpp la nga fa defoon. Mhm. waaye warumaa ñëw reculer waar ndax yow lu toll ni maison de presse boo xamante ne nii yow moo waroon a li wane sa ay travaux yi woon ci dëkk bi yëpp. Mhm. ah lépp loo xamante ni askanu Kaolack buñ amul ñu ko jooyee fa lañ war a dem jooyee ji ko fa. Mhm. nga tëj ko lu toll ni taabu de mixage dong kottu kundum. <laughs> table de mixage kottu kundum. tey ñoo ñëw sama table de mixage defee directement leen ko. dem di maye ji ay millions. yow table ni mixage boo xam ne moo war a doxal rajo ba dong mënoo kaa jënd loolu doyul de Elimane ña fa nekk jigéen nga leen di xëyloo chaque jour ñu yàq seen ay nelaw ci rin chaque jour ñu ñëw pour émerger pour lan pour pointage bi nga leen di def. Mhm. mairie bi dafa mës a am pointage. mu ko mairie bi dafa mës a am pointage mairie bi du CCBM du kër de ville. mairie bi c'est l'administration de l'État. Mhm. sëriñ bu moomul mairie bi bay pointé agent yi mu fi fekk fi la leen fekk pendant des années ñu ngi fi. Mhm. di liggéey kenn mosu leen a ñu ngi liggéey seen liggéey normalement mais yow ab journaliste boo xëyloo teg ko waxut bindut defut dara kooku journée bi du neex. journaliste nga teg journée bi yëpp lëmb nga ne ko émerger rek toog croiser les bras bul wax bul bind. te loolu moo tax gars yi di émerger maanaam ñi xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy. liggéey ñooy liggéey léegi yow yow nga émerger nit ki te liggéeyut. liggéeyu dara moom dara liggéeyu ko léegi loolu ban njëriñ la am. ban njëriñ la am xam nga maanaam euh, gis nga bi ñu naan bu ñu la yekkal si gaal. Hmm. xaj bu ci lekk. buñ lay jiiñ nañ ma baal ci kàddu yi. Hmm. buñ lay jiiñ dëmm buñ la fekk ngay. soccoo yee liir hmm. te buñ fàtte ne élection amoon na fi campagne amoon na fi. kenn ku si nekk yaa ngi doon xëcc jëmale sa boor ñii naan kii moo gën kaa moo gën kon nag bu ñépp booloo wóolu la. jox la yëfi askan wi danga caa war a doylu def ca la nga ca war a def ndax askan wi ëllëg bu njëkkatee leneen jox la. Mhm. waaye bu askan wi booloowee wóolu la ne yow rek la yow kose la yaa fi sës te xam nga dañ naa nag yaa fi sës mooy tax a falu moo fi amoon. Hmm. ndax ñun mosuñoo gis fii ci Kaolack pouvoir di fi la première fois pouvoir perte seen Kaolack. Mhm. kon mooy tax kon bu la nit ñi wóoloo jox la ay fi askan wi alalu askan wi liggéey ko normalement. franc mali bu mu ci manqué benn pa bu ko ci sërxal lepp luy damm mbar mi jeun mbar yi. Mhm. bu ko def. Mhm. bul doon max ci biir te max la fi seetlu ah. Mhm. ya sal doguma la sax parce que dinga euh, dafa am benn point bu ndaw bo xamne dama ko dama ko dig sa biir wax dafa melni dal benn en xamantene bi ne momla nga mom la indalé dafa melni zaru zaaru defante daal muy defante ak ñi nga xamante ne. waaw euh, taxna lu tax ma japp lolu moy que. rajo municipal bu Kaolack Mariama Sarr moom moo ko fi samp mm-hmm. dafa ñëw tag rajo bi tëj est-ce que tamit jàppul ne rajo bi rajo Mariama Sarr la tax mu téye rajo bi bu bañ a émettre est que loolu tamit bokkul daal ci li nga xamante ne bi moom moo tax rajo bi tamit. Euh, loolu moom la ñëpp jàngat. xam nga dañu mhm. naan xel ñëpp ko kenn ku si nekk sa xelu bopp. Mhm. te xalaat bu ñëwee ñëppay xalaat. Mhm. te bu ñëpp jàngat bu amee kenn ku nekk na ngay jàngatee te askan wi yëpp li ñu jàngat mooy li Mariama Sarr samp rajo bi ci mairie bi. moo tax moom mu bañ rajo bi dox moom xam nga lan la waroon a def Mariama saar jóge na fi. ñi nekkoon ci rajo bi am na condition yu ñu doon dund waaye terewutoon ñu ngay émettre. Mhm. di jox askan wi li ñu soxla chaque jour. Mhm. dafa waroon a ñëw renforcer les condition yi nga xam ne moo nekk ci biir dimbale leen ba rajo bi egg foo xamante ni eggu fi woon ba fi Mariama Sarr di pourtant dëgg la Mariama Sarr moo fi samp rajo bi mais rajoom la ndax toog nañ mu wax ci biir yi waxam ne man fréquence bi. Mhm. man lañ ko may. ma dem jënd sama ay matériel ñëw teg fi. Mhm. indi sama ay nit ñëw jox ko ne ko dañ liggéey. may ko mairie bi mu doxaati biir boo xam ne au lieu que ma def ko rajo privé ma ñëw def ko rajo municipal mhm. ndaxte nag bul fàttee euh, Elimane fii région yi nekk ci Sénégal yëpp lax bokk na ci les premières villes Mhm. kon ñun dañoo war a am rajo municipal. Mhm. parce que Dakar bu ñu amee rajo municipal feneen ak feneen rajo am ko kon Kaolack war nañ ko am te ñaata meer ñoo fi jaar. Mhm. Mariama Sarr am vision boobu innové. maanaam chaque jour boo ñëwee da def lu keneen defutoon. Mhm. ñëw teg fi rajo kon moom su ñëwee dafa war a doxal rajo boobu noonu mu dem parce que rajo boobu noonu moom mooy tax askanu kaw la xam ne maire bi def na fi lii defu fi lii. Mhm. parce que bu communication amut askan wi duñ xam li maire liggéey ak lu maire liggéeyul. Mhm. nest pa si foofu lañ koy xamee léegi yow Mariama saa ñëw na jël rajo bi def ko rajo municipal teg ko fi tax moom day wax ne les hommes passent les institutions demeurent. ñoo fiy des kon moom mënu fii dëjjati rajo bi mënu ko fii dindi xam lan la. mbartal bërigo la ci mbartal bu max mu dem ñàkk bu max mu dem dafa war a bu max nag ndax mu bañ a sonn hmm. parce que nag dafa mel ni bërigo bi nag dafa taxaw ci mbartal bi da bañ a a dem rek mais boo ci sëkkee suuf hmm. boo ci sëkkee suuf jël jël si jël béton def ko ci kanam fi mu war a daanoo kay fu mu jëm hmm. xam nga élément dañ ne ay fer waaw fan la jëm élément dañ suuf bu sutantee dañ koo jal te fi mu toll nii dañoo jal mairie bi moo tax mu sutante xam nga xam nga Eli roqe na wax lu gis nga bu fekkoon nii rek pour def privatisation rajo bi la mhm. kon kenn waxatu ko mhm. xëcc na ko teg ko ci entreprise bu yàgg mhm. daf ko entreprise privée ay commercial am konoon du tudd sax fu muy tudd RMK beneen mais xam nga dañoo xamul li ci fësal liggéeyu mairie ak communication am solo ba mu am solo li ci fësal ci liggéeyu mairie importance boobu la maire xamugul laa foog moo tax ñu ko xam ñëpp du ñu bàyyi mukk seen rajo municipal di di balaa. Mhm. du balaa mukk parce que tey am na ci projet yoo xam ne mairie bi moo koy porté indi ay partenaire am indi ay collaborateur am ak ñi koy financé. Mhm. ñu daal di defar jël def ci archive yi yóbbu benn benn exemplaire rajo. Mhm. ñu topp procédure bi maire def na fi. tali route secondaire. Mhm. jóge mairie jëm fële route secondaire fii fatt na canal bi fatt na canal bi am na canal yi clôture fermeture des canaux canaux à ouvert. Mhm. am na ci yoo xam ni domaine de compétence mairie la. Mhm. mais am na ci yoo xam ni du domaine de compétence mairie boo dem mairie na Mbaba canal yi mag yooyu ngay gis. du domaine de compétence mairie. mënuñ bëri xamuñu ko loolu état la. ONAS ñoo fa jaarale seen i tuyau au temps. ñu dindi tuyau yi bàyyi fa pax ya tali bi route nationale bi ngay gis noonu bu ma baxee du mairie moo koy mhm. defar c'est rôle c'est le rôle de l'état parce que ci wàllu canalisation ONAS moo fay jaar mhm. ONAS ñooy dem saisir état état saisir président ñu ñëw indi seen i financement ministère du finance ñu finance ñu ñëw defaraat toj defaraat mhm. ñu bari xamuñ loolu loolu nag boo ko fasalul ndax askan bi dinañ ko xam ñaata yoon lañ ci marché ndax kanaalu Medina Baaba bi xale yi fi mairie bi mairie bi mairie bi Mariam Sarr Mariam Sarr or que domaine de compétence Mariam Sarr tey jii bu ma rajo bi dee émettre ñu koy déglu di xam fi maire war a intervenir ci commune am ak fu mu war a intervenir ci commune am loolu nga ne ko koy tëj ràpp yow dèjà benn primo fi nga njëkk a lajjee mooy pour nga def direct yow. Hmm. ci sa propre rajo da ngay jëli journaliste beneen rajo. Hmm. sa organe de presse yow nga am ay journaliste yoo xam ni dix fois meilleur ka ngay jëli. Hmm. ab humoriste koo xam ne du journaliste. ab humoriste waxuma journaliste ab humoriste. Hmm. nga ñëw mu lay poser ay questions yu banal question yu nauséabond yoo xam ne dalay dalay xeeñ xetu neefare déglu ko sax si kombe moo la koy gënal. Maria ngi mer de tamit. non du question de mer parce que <laughs> il faut ñu wax il faut ñu il faut que ñu maanaam ñu wax li fi ne. Hmm. man ma yor sama organe de presse ubbi sama télé ubbi sama rajo Elimane nekk fi journaliste de renom. ma ko fay jéggaani mhm. di dem di jëli ay Pape Ndiaye coppet ak ay ñoom ñu euh, tëdd sax Krépin Diatta mi nga xam ne mooy def humoriste yi naan leen kaa leen posé ma ay question jël tànn samay question yu ma neex nag yi nga xam ne man rek la arrangé man kese maa ci mën a tontu man kese. non ma nga nga di ma ko posé. mais c'est normal xam nga ne loolu boo ko boo ko proposé ab journaliste. Ah? du ko nangu. bien sûr du ko nangu journaliste bëggul ko ko canaliser. même bu ko nangu même bu ko nangoo sax. voilà jël ko. am nga say personnel qualifié yo xam ils sont dix fois meilleurs man je vous dis et je défie quiconque. Hmm. gis nga journaliste presse locale bu Kaolack bii. Hmm. waxuma journaliste Père Diom yi parce que fi ñaari catégorie fi am. Hmm. chaque jour mok ah. da am journaliste Père Diom ak journaliste yu top éthique ak déontologie. je défie quiconque dans cette région fi Kaolack gii yenen région yi laa wax de yóbbule wuñ ñu dara ci ay journalistes yu qualifié. yóbbuluñ ñu dara bu dee compétence mi ngi fi crédibilité mi ngi fi. sunu indépendance ci liggéey mi ngi fi. Mhm. sunu lépp mi ngi fi comme niñ ko këraloo sunu kër gii. waaw lépp a ngi fi. compétence indépendance crédibilité. man nag sama kër du tëgg. Mor cee fecc ba samay tànk dam ba may. wàllu yaan ci kër jàmbur. Hmm. su ma fa tojee kaas maa fay may fay. buñ ma fa tamee. naa encaissé parce que maa tooñ. Hmm. lépp luñ ma fa def naa encaissé ndax parce que maa tooñ buñ ma joxee ñee baaraamu tuumay naa parce que maa bàyyi fi lu bàyyi fi ngalam dem di wuti përëm. xam nga tamit lépp kenn mënu ko wax. bu xóoree yàq nga fay salaire yi hmm. ay boroomi kër lañ. ah koor gi gaa ngi nii tey tey la lan. tey la 11. si weeru tubaab. weeru tubaab. mu nekk ba koor gi démarré ba tey est ce am jur ñi démarré ñaata jour fukk fukki fan. ah am weeru weeru weeru wolof am nañ fukk de. waaw ñi ko démarré la woon samedi. samedi ah. tey lañ am fukki fan. ñi dimanche ñi démarré dimanche tey lañ am juróom-ñeent. koor gaa ngi dem jeex na te chaque jour lu mu néew néew chaque jour yow xanaa xamoo ne dépense weeru koor élimaan a métti gis nga nee naa man genre yi yàlla yàlla na ma ci yàlla suturaal mhm. xew weeru koor non xew weeru koor benn affaire la laa ilaha illallah koo koy wax man parce que naa ko suñu kër xew weeru koor moo xolal moom moom mooy sa bopp yow dépense weeru koor naka noonu dépense weeru ñun tey ji par exemple bu ñu cinq mille jour ordinaire tey ñu ngi ci dix mille jàpp quinze mille. waaw chaque jour. waaw jour ka jëfee. suukar mburoog mba la ngay togg ak ñoom seen. ak yekkale ba yekkale ba ñoom seen xam nga à Sénégal teraanga ko sonal. mu ngi koy chaque jour da nga yekkale. loolu yëpp nag ñu di ko taaba taaba chaque jour am na ñoo xam ne peut être am nañ ay business yu ndaw. Mhm. mais ñi ko amul nag Elimane nga xam ne sa yaakaaruñ dara du seen salaire bi. Hmm. wax ma la waaye di waaye bu bu bu kii bu xaroo yaa ko rey. xam nga moom xam nga ne talul defi beneen business. bu xaroo yaa ko rey. Hmm. kaay nga fay salaire jàmbur ci weeru koor lañ nekk. nga ay secrétaire rek ay la la mam li ah Mamadou eh, kii Elimane Kanwan hmm. wax hmm. ay dugg na fii génn na fii on va parler ak Serigne Mboup génnal nga wax ak askan bi génnal nga wax ak askan bi 9h50 moo daal di jot suñu émission jeex na <laughs> ah noonu ah doy na waar Cheikh Tidiane Dansokho moom ne woon ci terrain bi ñëwaat na kon xam naa ba laata ñuy tàggatoo. <laughs> jox ko mu résumé <laughs> waaw mu résumé ñu waaw ni bi tey xumb naa. waaw ah, buntu yëpp dañ koo tëj muy chef de service bi Aligna. Hmm. kenn liggéeyut nee nañ duñ signé ah, dara. état civil liggéeyul. kenn ñëpp laa la wax même ba ci waa UCG. Ah? ah déet état civil moom war moom waruñoo nag grève de. foofu ma nga fees dell ñay ut ci kayit ña nga fees ña nga toog foofu noonu Aligna neen du signé dara. Eh? te neen duñ dakkal seen grève bi fii ak signé wuñ salaire yi Euh, euh, premier adjoint tam mami Mbow wàcc pour wax gars yi faale wuñ ko euh, parce que dañ ko yuuxoo mu daw yéegaat ci kaw moom Mbaye ngoom ah mu doon situation boo xamante ne parce que amul amul presse bu des hmm. muy Dakar ak tu yenn rajo yi bëree bëree bëri ñu ngi fa waa RTS waa Sud FM ñu bëri ma cité leen samay naataango donc Elimane mu doon loo xamante ne euh, gars yi bi ba koo jël au sérieux ndax nee nañ mënuñ toog 3 mois. Hmm. ngay borom kër nit ki la premier fay ko salaire am parce que nee na lii raam ci ñag ba parce que ñoom nee nañ ba léegi jënduñ sax luñ ooree te nee nañ dans denrée de première nécessité. Hmm. dafa dafa cher hmm. te ay borom kër lañ tey mairie ba ku fa nekk rek borom kër nga. fii kuy liggéey rek borom kër nga. Ah, munoo téye salaire u jàmbur ba tey la onze nga ne ko nga nga ne tri jël vol dem Chine. Ah. ñu ñëw di wax ak di wax ak premier adjoint bi mu ñàkk leen kersa ñoom nag ñu daal di def li ñuy def. Hmm. Ah, te nee nañ comme moom bañ demee di wax ak moom faale wu leen. kon donc ñoom tam duñ wax ak moom te nee nañ tamit li mu bëgg a def foofu nee nañ bu ñu amee ay gan yoo xam ne c'est pour la municipalité da koy jël yóbbu ko fële chambre de commerce nee na 8 mars tamit mu waroon koo célébrer la municipalité mu indi ko cœur de ville mook ak ñi àndal ba tey moom xamul ndax lan mooy mairie ak kër de ville donc mu doon ay question yu bëree bëree bëri yoo xamante ne damay toog fii di ko wax ci rajo bi ku xamut moom la ñuy fal waaye sénégalais gisaguñ dara rawatina waa Kaolack waaye loolu laa ci am lu ma dafa dafa mel ni daal moom ba léegi mu ngi foofu hmm. noonu euh, hmm. hmm. ah, am na ah. boo xam ne yaatu na vraiment euh, donc moo tax activité mairie yëpp fa lañ ko doon defee moo tax ah. su ma déggee ñu naan euh, ku jàngul mën naa diriger ñi koy wax Euh, ñiy jàng ci école yi bu ñu leen déggee dañuy ñàkk jom. Mm-hmm. loolu kenn du ko wax. Mm. Euh, parce que ku xamul média doo ñëw toog di wax. Mm-hmm. ku minute micro doo ñëw toog di wax. Mm-hmm. faaw nga xam ko bu door mën a ñëw toog di wax. donc ñee nañ nekkee ne dañoo sonn parce que seen kanam yi boo ko xoolee da ngay xam ne ñii. élément euh, deseetuñ dara parce que tey la diis te dëkk bi daa métti. li ma toog fi wax rek ba am message ma ne ko salaire bi boo koy jëli banque jeex na. fajul dara dañ koy dagg rek. dañ koy dagg di ko dagg daggee te ba pare am na luñ ci yokk nee nañ impôt bi léegi da koo def 10 000 francs moom lay dagg. Euh, ci loo xamante ne bëriwul donc na xoolaat bu baax doxinam parce que délégation espéciale Macky yii la yàkkamti. Hmm. mairie yum perte. <laughs> waaw yow de taatu ko tamit ci seen biir wax ndax nee nañ management bi des na. waaw mooy li ma la wax maanaam day am gan au lieu mu indi ko ci salle de délibération mu yóbbu ko. chambre de commerce wala cœur de ville. ak tamit ñoom nañ nekkee ci biir mairie bi. waaw parce que nee na nekkin nekkin parce que maa ngi gis euh, maanaam du xooxotal nit ki bàyyi ko mu liggéey il faut que nga responsabiliser. Mhm. parce que élite yi bu fii grand njawar na ko ku ñëw 8 h ko dama yaakaar ñun ñëpp kon dootuñ xëytee si. Mhm. non parce que nit ñi seen problème yi. maanaam problème bopp nit ñi nit ñi doo leen jàppee seen jëmm mhm. mais da leen di jàppee seen seen li li nekk seen bopp yi nit loolu nga koy jàpp ay monte caméra de surveillance entreprise publique lu ci jaru caméra mairie c'est pour waa Kaolack mairie ñun ñëpp a ko bokk mairie ñun ñëpp a ko bokk xaliir bi sax ci as mairie bi la buntu bu ndaw ba nee nañ dootul tëjooti bu juddoo balaa moo dem kër ga ay kay parce que parce que nee nañ handicap yi buntu bu ndaw ba lañ doon aw parce que foofu moo am moo am escalier moo am route bi nee nañ kenn dootu ko tëjati ñoom daal nee nañ daal fi ne nii lépp ah, dañ ko doon tëj ñoom ñëw ba tey ça fait trois mois ni buntu bi lay tëj parce que daal ñoom daal fi ne nii Eliman mer nañ te fippu nañ nee nañ fi ne nii ñoom waxatuñ cadre rajo sax mais management bi te ba pare dafa jël ay nit yoo xam ne mairie bi moo leen embauché mu jóg de dugal leen biir UCG te nee na ñoom seq ñoo dara UCG. Mm. te nee nañ léegi ñooñu dootuñ toogati ca bureau DRH ba dañuy wàcc di yéeg ci koñ yi di bale te ñooñu ay mag lañ. Mm. léegi nag ñooñu ñoo ñëpp ña nga génn waa UCG ñoom itam nee nañ seen salaire yi doon yi ñu doon fayeeku la 30 wala la 29 nee na sëriñ bu da ko yóbbu la 15 te wàññi na ko. Mm. donc mu doon ay problème yoo xam ne commencé na te dooragul. mu ngi noonu xam naa ne si fii rek la ñuy daal di tàggatoo parce que suñu heure bi ñu cërale woon jeex na Euh, mu nekkoon ab xibaar boo xam ne wàcc na sànq rek si biir émission bi mu nekkoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy agent municipal yi nekkee ci biir mairie bu Kaolack euh, tey génnoon doon def li nga xamante ne moom mooy doxum ñaxtu euh, daal di tàkk seen i yu xonq ngir ñaawlu nekkin bi ci biir mairie bi yéexaayu salaire yi waaye tam ak seen condition li ni mel nag Cheikh Tidiane ko demoon jëlil ñu ko ñu dégg ko en direct fii si rajo bi kon dama leen di bàyyi ngeen daal di tàggatoo soxna Rokhaya waaw Elimane ñoo ko gisandoo. Mm-hmm. waaw ñoo ko gisandoo ñu ñëpp nekk mbir mu doy waar ndax neexut nga liggéey ba weer dee. mënoo mm-hmm. jot sa uh, salaire nga toog ay fani fan dafa métti. bu xam naa ne benn bés rek bu ñu ko ci tegee ci 28 bi daa métti. Mm-hmm. asamaak 10 jours uh, lu métti métti war nañ leen a jox seen ay salaire te li may wax chaque jours boo ñëwee ñu lay jiiñ dëmm bul soccu yeeru liir. te maire bu kawlax bi loolu la dikkee ndax te ba muy ñëw ñu bëri daj na bu dikkee dana def li dana def li te teggiwul tànkam. na teggi tànkam nag ndax jot na ndax boo demee ba ay say ñu ngay liggéeylu di fipp te bu maytul ma ko fipp tàppet bu fipp bu la jekkoo ko maara day taali mhm. waaw du bàyyi te maytul ma tamit ku mer te si mhm. weeru koor lañ nekk te bu ñaanee day dal élimaan du may tàggatoo rek di jox dig daje auditeurs yi ba ëllëg incha allah soxna Ndeye Marie mu ngi noonu di eh, am mbégte ba bu baax a baax doonte ni sax eh, pare njuge moom waaw ah, France moom wax dëgg yàlla mu nga sedd bay taw galaas. Hmm, nga jóge fa ñëw si ah, tàngaay bi daal di ñëw fii nag. ci salaire bi mooy génne aljana duggaat safara rek waaw génne aljana <laughs> damay takkaat sama dëbës rek tegaat ko ci nii. ak <laughs> kañ damaa ñëwoon pour fu xool si auditeurs yi ak auditrices yi rek. ah dañuy taqaat njool mi. di leen jox rendez-vous euh, incha allah man nag ça ça sera euh, en la France. Mm-hmm. Serigne boobu kaa nga fay yi. waaw si sa place ngay toogaat suba. non non euh, direct lay doon Paris France Paris lay doon. man damaa damaa assuré woon intérim bi tey rek xam naa ne fii ma toog nii du sama place suba daal ma delloo la sa place. non non yaay sant bi semaine bi yaay gérer. Ah, semaine bi yaay gérer allah ji tey euh, bu nga xamante ne ñooy teewlu rajo suñu kër FM w point suñu euh, euh, bi mujj naa nekk sax jot a am ci biir émission bi parce que noonu la parce que xibaar bu bees moom dee su ko mën neenal dañ koy joxe rek mu mat sëkk parce que ñun moom traité information moom moo ñu tax doog fii moom moo tax bi xibaar bi wàddee rek ñu daal di ko dugal en direct rek ñu dundandoo ko ñun ñëpp euh, di gërëmaat bu baax a baax ki nga xamante moom mooy suñu ndaw ba fa woon euh, di tijaan Tidiane Dansokho euh, foofu na ci mairie bu Kaolack di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu gi di jaajëfal Njawar Diop mu nekkoon Elimane Ka ci kaddu gi àndoon ci équipe bi di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen émission suñu Kër Matin jërë ngeen jëf. déglooti sunu kër FM sunu rajo laa Say ni kahla